mbokki jullit yi seetaan seen télévision Touba TV mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ñaanal te di sàkku ci yéen ñaan di ñaanal Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké suñu borom dëgëral ko kàttanal ko ak mboolem ñi nga xam ne tànn na leen teg leen ci wetam ngir ñu jàppale ko ci liggéey maam ju tedd ji yàlla na ci am lu kawe njortam te lépp nu ànd ko moom di ziyaare mboolem ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel télévision Touba TV. ci émission spéciale bi nga xam ne ñi ngi koy def di ko jëmale ci ku màgg ku tedd koo xamante ni dañoo wax ni jigéen la waaye cërub góor la yor muy soxna Maymunatu Kabir ndax euh, ñëpp xam nañ nim meloon akuk taalibeem ak lim joxe woon léppam Sëriñ Tubaa Seexul ñu dëgmal nag bisam boo xamee nii dañ koy amal ginnaaw korité saa su ne euh, ci fukki fan yi insha allahu taala ñu dajale fi ak njabootam dajale mbokki taalibe yi ñu wàcc ne ko waajal di jiital ki nga xam ne mooy sëriñ Abo mbakkee di ko ñaanal suñu borom dëgëral ko ta kàttanal ko ci waajtaay wi nga xam ne def na ko te taxaw ci temm ànd koog rakkam muy soxna Maam Anta moom itam ñu ngi koy ziare di ko ñaanal jàmm bu baax mbokk yi ñu ngi toog ak ay ñoo xamante ni ñu ñu ràññee lañ ci ay waxtaan waxtaane sëriñ bi rawatina kii ñuy bëgg a waxtaane euh, jataay bi nag ay kilifa yu tedd ñi fi kilifa yu màgg ñi ngi fi incha allahu taala ci kanam danan leen indil seeni tur ci ñi fi teew waaye ngir njëkkanteeg waxtu bi euh, ñu ngi feggoog sëriñ Maam Mor Mbàkke xam sa mu bokk nag ci kër gi itam bokk ci ñi fii waxtaan tey jii incha allah ci soxna may a Kabir waaye bokk na ci sëriñ Seexuna Buso leen moom it di ku ñu ràññee ci waxtaan rawatina ki ñuy bëgg a waxtaane ñu koy tatagal di ko dalal jàmm waaye itam di dalal sëriñ Gana Mesere Moxtaar moom it ñëpp ràññee ko ci waxtaan ci sëriñ bi moom itam dana may tomb yum ci indi incha allahu taala bokk na ci itam ku ñu ràññee bu yàgg lool sax muy sëriñ Busra Samb momitam itam bokk na ci ñi wara waxtane soxna si tedd soos yi nga xamne moy soxna Maymuna Kubra soxna Maymuna mi ñi waxtane nak ñi fatali mbokk yi ne mom soxna Maymuna sahir mom lañ ko dippee ta lolu way juróom bu tedd yi moko def muy serigne touba cheikhul khadim moom moom yi nag ñi bëgg waxtane moy ki nga xamne mo moo bopam ne Maymunatu bintul khadim war na la foo toll di jéem lu neex sëriñ bu mag bi ndeem am nga ci ngor dara dara war na la sant yàlla lool war na la tuubal ko taxool li mu la may te xam ne tool ku ci ne war di def dara moom ku sàmmante woon la ak la nga xam ne woyan na ko digganteem ak sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo tax tey jii ñu war koo waxtaane xanaa di jox kàddu gi sëriñ Maam Moor mu nuyoo incha allahu taala sëriñ Mamour ñu ngi lay tatagal di la dalal jàmm fàttali mbokk yi nag ñu ci biir kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacké xanaa buñ ko tuddee tudd soxna Maymuna day war te day yàll te day jaadu sëriñ Mamour salaamun minallahi aleykum wa rahmatuhu taala wa barakatuhu bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين وكجليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنا بن سانتي سون سبحانه وتعالى جولي مصطفى صلى الله عليه وسلم دي جاجف الشيخ الخديم نوغي تامبالي سي بونتو بي نيو سيدي المختار مي في ak lépp lu ñu yëngal ci yoon wi ci ndigal lañ ko defee ba ci jotaay bi ñu ñaanal ko sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ba mu àggali mboolem ay yéeneem waaye jaar nag ci ki fi nekkal soxna Maymuna muy sëriñ Abo ñu di ko nuyu baax a baax soxna Anta ak sët yeeg bokk yeeg ñëpp ñu deen nuyu den ndokkeel euh, di bëgg waxtaani koo xam ne waxtaani ku mooy waxtaani alxuraan waxtaani ku mooy waxtaani lislaam waxtaane ko mooy waxtaane sunu waaye mooy waxtaane liggéeyub sëñ Tuubaa ndax day ko am ngërëmal yàlla ci aw doxin bàgg fi mu mm-hmm. te buñ duggee ci li nga wax léegi ne e, e, cërub góor la man a man jigéen la ju man góor ndax lim jëf lépp jëfi góor la maanaam mm-hmm. bu ñu subaa ci biir waxtaan lool dana dana leer baax baax insha allah barakallah jërëjëf sëriñ moom sëriñ jëli ganaar kon sëriñ Seexuna bu sa combu leen naa ñu ngi jéggulu nag waxtu itam bu baax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 mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp nag ak kilifa yi ñu seqal jataay bi ak képp koo xam ne mi ngi dégg sunu kàddu xanaa di am mbégte rek ci fekke jataay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy fas fii ci kër sëriñ Abdul Xaadar di siyaare kilifa ëtt bi di sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdul Xaadir di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi te may ko ak wér ak mboolem njaboot gi di di ko ñaanalit njabootuk soxna may Maymuna gi nga xam ne ñoo tax tey ñu toog fii ci jataay bii tàmbalee ko ca kilifa ga ba ki ci gën a suufe ñu ngi nuyu ñëpp di leen ndokkeel waaye di leen ñaanal lii nga xam ne ñu ngi koy ñaanal njabootu Serigne Abdul Xaadir di ko ñaanal umma islamiya bépp di am mbégte rek ci fekke gu ñu fekkee jataay bi di ñaan sunu borom nag mu defal ñu tawféex ba mu bokk ci jataay yi mu gërëm waaye mu defal ñu tawféex it ba kàddu yi nga xam ne ñu ngi am pas-pas ci rotal ko fi ci jikko ak meloy soxna si mu doon yoo xam ne dana jariñ képp kuy ab jullit te bëgg a jariñu barakallah sëriñ Seexuna bu sa cumbuleen kon mbokk yi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 إخواني أخواتي أصحاب المعالي إخوة الإسلام أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي بوكي سنغال بوكي أدونا نوغي لندي نيو دي لن زيار دي لن دوكيل تي ويرو تيد ويغا خامني تي لن بايكو اك ويرو ماك ويغا خامني تي لن تابي دي سياري بو باخ باخ بروم ريومي دي شيخ سيدي المختار اك مبولم جابوتو سيغ توبا Rakam yep ak murid xam yep di siyaare sunu bokki julit yi nga xam ni ñoom lañ bokkal plateau bi di sunu kilifa di siyaare nag itam njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ni fan yi bàyyikoo nañ fi Cheikh Cheikh Aliou Mbacké moom Cheikh Ahmadou Mbacké ak rakam ji nga xam ni moo ci topp démb rek muy sëriñ Isxaaqa Mbacké ak sëñ mam Balla sëñ Mourou Aw Balla di ñaan yàlla na ko fi yàlla yamalee di di ñaan suñu borom euh, jéggal leen yërëm leen tabal leen àjjana boole leen ak tubaa di ko siyaare kilifa yëpp di ko siyaare njabootu sëñ tubaa yëpp di bég ci daje bii nga xam ne daje nañ ko fii tey ngir yàlla ak yonent bi ak jëmmi sañ tubaa ak fàttaliku sayyidatuna maymunatu al kubra bintu xaadim rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci barkeem ak barke boroom ëtt bu tedd bii waxtaan siinu ci bëgg a wax ak nu mën a toll yàlla nañ ci jariñu jariñe ci ci barkeb xaadim rasul sallallahu alayhi barakallah jërëjëf Serigne Bousra Samb euh, ñu ngi santaat baax ci teewaay bi Serigne Ganna Messere Mokhtar euh, bisimilah salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullah noo ngi nuyu kilifa yu baax yi fi nekk yépp di sof sunum nuyoo ci nuyoo kilifa yi fi jiitu di sant yàlla bu baax ci jataay bi di ñaan sunu boroom mu nangul nu te dajale ñu ci tawféexi sëriñ bi jërëjëf. barkala jërëjëf kon euh, xam naa ñu tàmbali waxtaan wi rek door ko ci bismillahi rahmaani rahim di jéggalu nag bu baax itam suñ kilifa yi nga xam ne ñoo fi toog incha allahu taala euh, ci kanam tuuti danan euh, lim ñi nga xam ne ñoo fi jot teew ci góor ak jigéen rawatina itam soxna may mun a yëpp rek nga xam ne dippee na leen soxna may mun a kabir seenam taxawaay rafet lool incha allah dinañ ci ñëw waaye di bàyyi xel itam sëriñ moor soxna mi nga xam ne ci suba ba léegi eh, mi ngi ci yëf yi naka jekk fan yëpp moom itam ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom sëriñ Cheikh May eh, nga xam ne tey jii rek eh, fi lañ yandu moom it boobaak léegi muy am ci ay wàccuwaay yu am solo yoo xam ne mu ngi koy jàppale sëriñ Abu ñu koy santaar di ko ñaanal suñu borom dëgëral ko kàttanal ko sëriñ Bouchra dañuy daal di tàmbalee ci kii ñuy waxtaane ndax buñ ko bëggoon a xam lan cëslaay ca li ñuy jog gi ba xam kan mooy soxna Maymuna Kabir ci ganek àddunaam fa mu jaar incha allahu taala ba fi tey bismillah jërëjëf sëriñ Afi Cobaan soxna May ni ko sëñ Mor mi waxee waxtaanee ko mooy waxtaanee lislaam mooy waxtaanee alquran mooy waxtaanee sëñ Touba baayam rek kenn la ci doomi sëriñ Touba yi te foofu rek doy naa yem doomi sëñ Touba la. ndax soxna amit bu Bousso yaayam sëriñ Bousso bee ko jur ñu bokk soxna jaara lépp waaye soxna Aminta Kani lañ koy wooyee muy sëtu sëriñ Ibrahima Awañang dëkk Afe dëkk Mbusoobe dëkk Mbàkke di mbokkum ñépp feeñ ca Jolof wax nañu atum hëg Chine si muy bi sëñ bi bàyyi koo gànnaar ba dikk jolof mu dëppoog atum milaad yi mi wax 1800 1909 1907 8 7 8 8 moo gën a lëng maaseeg ñi ñu xam jamono muy doomi sëñ tubaay ji ñu wax seex abdullahi borom dër bi ak doomi sëriñ xaafiye ji ñu wax sëriñ xaasim ak ñaari sëti sëñ Touba yi nga xam ni mooy soxna Mariyamu ak soxna Mbenn Fadilu mu bokk ak rakkam ju jigéen ja soxna Xadijatu bintul Xadim lépp ak rakkam ju góor yi nga xam ne mooy borom kër gi di Cheikh Abdoul Khadir Mbacké soxna May ku ne xam na ni yonent bi sallallahu alayhi wa ku bëggoonu gaaflu la bëggoon arfaan la waaye mag ñëpp xamoon na ni bu fi yàggee ni mu mel rek lay war a mel ndax ñoo ñi mu maaseel jamono terewut tam xasida gi ñuy wax alhaadi moom la maaseel ak xasida gi ñuy wax allahu gis nañ tubaa tënke allahu di ihfaz li wajhikal karim kulla man hafizatil abyaati fi kulli zaman xamoon nañ ni bu fi yàggee dana jub te dana sàmm ba matee dal alquran ñu jox ko sëriñ daam abdourahman loo mi nga xam ni moom la sëñ tubaa wàkkiloon loolu ci lu bari ci rakkam ak i doomam mu jàngal ko alxuraan ba mu wattu ko bu teel man ko lool yàlla defal ko tew féex muy doomi sëñ tubaa ju jigéen di jëkk a teg ab mu mushaf ci loxoy baayam sëriñ tubaa dafa wax ni sama jenn doom ju jigéen du ne su ma doon góor waliya baarik fil bannina wal bannaat bi suuratin awaluha wal aadiyaat la sëñ tubaa wax nee na yàlla may na ma ci barkeb saaru aadiyaat yi góor barkeel nañ sama jigéen barkeel nañ jenn doomi sëñ Tuubaa ju jigéen joo xam ji dana taxaw rek ci menn mbir ni su ma doon góor du am ndax lépp loo xam ne lii yàlla gal na ko góor gàll ko jigéen jenn jigéen genn góor mosu leen cee man mu mokkal alxuraan lool jàng xam-xam itam li dal sëñ Tuubaa rek ko dal mooy musta jaar ci jaambur fu mas a jaar rek ci bokkam rek ci la jaar ba raw ñëpp moo tax sëriñ bi wax ni tawajjuhi li lazi yu'li al maqaama bila ijalati li jihaadi shaami wa siidi bima yàlla na mee def may géej ay géeja ma jur ñoo ma tëbb ba ma jaar fenn musuma jéggi xam-xam musuma dem Cham wala Siin moom itam bi mu Alim ci seigne dam ci sëñ kan ni jaayam rek ak seigne Mbàkke buso ci la jaar bay géej firndey xam xam moy limu bind ndax firndey xam-xam moo ragal yàlla ma yakhsha allaahu min ibadihi ulama ragaloon na yàlla lol xamone ko lol nangoon ko top nangoon ko jam nangoon sanje bopam mom soxna may mënatu mi ci luy jariñ bi dee bari woon na xam-xam way na ci arab way na ci wolof boole na arab ak wolof ñi dakk way ci yoonu ku ci nekk jamono ak yow kenn musu koo daan mu teel sammu sàmm amuk talibé bi nga xamanteni bi diinem lépp yéwén na itam serigne touba jébbal ko magam ji soxna Fatima mu soxna fadja mu jàngal ko ak talibé ndax serigne touba daana def doom jigen ju mokal alquran jàng xam-xam bay fóore mu ne nañ ko jàngal togg ak tont ñu dox ko soxna Faat magam ju baax ja mu def ci moom la mu def ci moom tërbiye ko tarxiye ko jàngal ko lépp lu jigéen di man yoon woowee mu ko tegit mosu koo wàcc mukk soxna may mii nuy waxtaane ku juboon ak bokkam yépp la la ko tàmbalee ci seex Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke magam ji ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke mii ak mboolem ñi mu bokkal sëñ te ñu diw jigéen nee ñu dëkkee rek wër ko rek nee mu mel rek na lañu ñu meloon ci bu ñu dund soppanteeg ñëpp doy ñëpp xaritoog ñëpp mboolem doom sëñ Tuubaa yi kenn ku ci nekk mën nañoo wax fu jaar ak moom ci diggante bu rafet ak diggaale bu rafet firnde yi ni meloon ci biir bokk bi mooy turandoom yu bari yi ci yoon wi ci biir bokk gi ak ci biir taalibe gi moo nekkoon itam di d'union diggante yoon wépp boo tuddee soxna may tudd nga Bàmba jëpp tudd nga Daarul Muxti tudd nga Mbàkke Xewar tudd nga Daaru Salaam tudd nga Tuubaa gépp yal na nu yàlla tas ci barkeem kon yaakaar naa ni foofu rek ab tënk la ba ndegam incha allah danañ jotaat ci kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Bousra ci tënk bi nga xam ne indi nga ko ci soxna Maymuna Mbakke Kabir doy na sëkk rek ci njëlbeen gi ni nga ko waxee mooy ñaari xasida nga xam ne dañoo maase muy alhaadi ak xasida ak allahu muy ixfas li wajhikal karimi kulla man kon faaw dana sàmm waaye faaw dana jub kenn du ne boo doon góor ne dem nga góor ña laa xaw la cat jiitu nga it jigéen ña euh, sëriñ Mamor naa du ñàkk foofu dana am jàllawle tuuti ci wàllu lii sëriñ Busra wax ñu doon dikkaat sëriñ sëriñ Seexuna incha allahu taala ci diggam ak sëriñ bi incha allahu taala. waa jërëjëf euh, sëriñ Busra ci kàddu yu am solo yi mu fi jot wax ci njëlbéenu soxna May. ni mu waxee ne xam xëg sasin la gane àdduna xëg sasin yooyu Sëñ Tuubaa da cee eh, da fekk Sëñ Tuubaa mat sëkk lim doon fekk na mu dem ci géej gi liggéeyal boroomam ba ab liggéeyam sotti mu dikk di ab jant dem gànnaar liggéey fa la mu fay liggéey ba ñëw ci yéen nga xam ne diggam boroomam lépp mat na sëkk fees dell foofee la amee soxna may kon ci ak ma sëkk la suñu borom joxe sëñ Tuubaa soxna May Kubra tax at moom yi sëriñ bi fonkon na ko lool daane ci tënk ay turi yàlla di ci tënk ay turi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ak sa am na salaatu goo xam ne da ko ci tënk allahumma ya haadi ya karimu ya salaamu ya shakuru muy ak sa salli wa sallim barik ala sayyidina walana muhammadinil mahdiyil mukarrimil musallimil mashkur muy ba tey xëg sa sin nga xam da ko tënk ci tur yàlla tënk ci itam turi yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, ni waxee ne bi mu àdduna ci at ndaw ñëwee ci Sëñ wax ko ko ne ko gan day feeñ na fi soxna Aminta am na gan dafa laaj ne góor lam jigéen ñu ko ne moom di jigéen la mu ne tekk as ndir ne moo ne moom de cërub góor lañ ko fàggaloon loolu nag baat boobu dafa feeñ ci ak dundam lépp nga xam lépp ay jëfam ay doxalin yépp doxalinu góor la ni sëñ bu saa ne moom amul jenn doomi sëñ Tuubaa jigéen jonaan su ma doon góor loolu dafa feeñ ci dund soxna xam nga sëñ Tuubaa fa masa nekk ñetti daara lay boole daare alxuraan joo xam ne ñi tollu jàng alxuraan ñoom doo nga fee nekk kenn du leen rax duñ def lu may jàng alxuraan ak daari xam-xam jox ñi mokkal alxuraan bu noppi ñoo fay nekk kenn du leen rax duñ def lu may jàng xam-xam ak daari tribu bi jox ñi mokkal alxuraan ba jàng xam-xam ba noppi ñoo fay nekk soxna may dafa ñett jaar ci ñett daar yooyu yëpp bi mu jógee ci sëñ dam da koo jox sëñ sëñ sëñ Mbàkke busu mu jàngal ko xam-xam ba mu géeju ci fànn yëpp ni ko sëñ Busra waxee léegi mu dor ko jox nag jébbal soxna Fadja ne nga jàngal ko talibe foofii la tarbiyewoo kon jàngal alxuraan mokkal jàng xam-xam ba géeju tarbiyewu ba lépp a sëñ daam moom yi nag bam fa jàngee ba wat ba bind kaamil sëñ daam ànd ak moom ñëw ci sëriñ Touba loolu xis la boo xam ne ñëpp dégg nañ ko ba tàyyi bi nga ko jébbalee kaamil bi sëriñ bi da xool da ca sedd lool mu ne ko may mu ne day sama tikki xol ja yaa ma ko tekkil tikki xol ja mooy bi mu nekkee gànnaar Cheikh Sidiya am doom ju jigéen ji mokkal alxuraan Sëñ Tuubaa mel ni ku koy xellantoo ak moom di ko wane sama doom ji mokkal alxuraan bu bind kaamil boobu Sëñ Tuubaa ci zahir sun ba mbayigu ko lu mel noonu te lu baax lu ne bëgg na ko loolu na def tikki ci xolam bi mu ko joxee kaamil boobu na la ne ko sama tikki xol yaa ma ko tekkil ca saasa dafa daal digle ne nañ ko daal daajal ab barak ci kër gi ci biir kër gi ñu daajal ko barak ci bi ci ci kër gi ci bis bi mu sanc ko ci bis bi la ngir so sedd xolam ca loola yemu ca waaye mu dikko ne ko dinaa la tudde doom bañ ca tegee ab diir ay ñaari at la ko tudde si di ko sëñ e, e, alaaj alaaji afi waxe ci njalbeen gi mooy tudd soxna mbay mi feeñ mu mu jox ko turwa ngir tarale ko ko yemu ci dikko ne ko bis penc bu suñu boom àttee jaam ñi bu ku ne dem fa nga dem naa la naa la fa defal su la neexee nga dugub bi sawra ku la fa soob nga génne ko duggal ko aljanna loolu bokk ne li mu ko digoon ci bi ko jébbalee kaamil ngir sedd xol gum ci sedd xol ndax mooy ko njëkk a jébbal kaamilu alxuraan loola it lu am solo feeñaat ca ndax see siid yi moom séqaloon loolee ba tax maa ngi ko yaa teg yaa sama tikki xol ja ñu teg ca as ndiir mu yónnee fa ay ndaw bi ndaw yi ñëwee sëriñ bi woo soxna may jox ko gàtt ak lëf ci dugub ne ko defal ma ko ab reer te ku la dimbaliwul ci kaamil bu la ci dimbale ku la ci kaamil bu la ci dimbale mooy kon lépp na nga ko def rek nga xam ne moo ko soq moo ko wal moo ko tey defar ko boole ko gàtt boobu ba ba muy cere ju mel na mu war a mel mu jëbbal ko Sëriñ Tuubaa mu jox ko naar yooyu ñuy xéwal ba seen xol sedd mu ne leen naka mu ñu ne ko moom koy tubaarkal la mu yëkkati kaan jox leen ñu xool ko yéemu yéemu ca lool mooy leen sama doom ji liggéey li ngeen jëfandikoo de moo bind kaamil bi kon won na ci ne mën na la kee mënoon mënaale lu ko ko mënut mënut ndax koo fi ne ku ko ku ko defaloon ca rek du sotti sëñ Saliou daan na ci soññ soññ soññ uh, ay taalibeem di wax ne sàllaaw tubaab yi ngeen di ñaay ko def nangam maanaam lu ñu def nga di ci yem fii na sàllaaw koo ci koo ci koo ci feccal feccal aw sàkket rek koo ci feccal aw sàkket da nga ko sonal lool te du ko man kon mooy la nga man la nga am bu ko xeeb foofu nag la soxna Mbay nekkoon noonu la amee ndam ci diggam ak uh, Serigne Touba ci liggéeyam bu bu rëy boobee kon daal ñu xam ne kon ci njaalbeen wane na. Eh, lam war a doon ci ab taxawaay bu am solo boo xam ne liggéey digg digg ma Sëriñ Tuubaa moo tax Sëriñ Lamin Jóob mii ci sa gannaaw def naa defoon nañu bayit boo xam ne daa tënk loolu jigéen ju man cere man ceeb xam xadis man a waay man alxuraan bindikaay mel soxna may du keneen bismillah bismillah eh, sëriñ Mamour xam sa eh, xam naa sëriñ Mamadou Lamine moomu sax mu wax léegi dina feeñ ci kanam insha allahu taala moom it ci way yi nga xam ne def na ko ci soxna May Kabir euh, bokk na ci li nga wax léegi ci wàllu kaamil bi xam nga soxna May bind na ñetti kaamil ci li nga wax muy bind na Sëriñ Tuubaa ñetti kaamil waaye mel na ni ñetti kaamil yooyu euh, bi ñu gis mooy bi ko Seex Ahmadul Fadilu bindloo ndax ginnaaw xëy na ci bagage yeeg yu ni mel waaye ñetti kaamil la bind benn kaamil bi nga xam ne nag moom sax danañ ko wane léegi mi ngi fi te ci ak mu jëm lañ ko lañ ko bindloo Cheikh Abdoul Fadal bindloo ko ko muy lu lu lu yéeme lu doy waar tey daa mel ni lu mënta woon a ñàkk la euh, ñuy santaat bu baax ci loolu ndax sëriñ Mbàkke Bousso mi nga xam ne day mag ak ni mu demoon ak sëriñ Touba wëlbati ko tudde ko doom doom jooju sax am na lu ci am ci ay waxtaan ci njëlbeen ko ko ci yooy waaye teewul bam bam ba mu àggee ca moom dafa wax ne sëriñ Mbàkke Bousso dafa leeral ne man duma ma tuddee sama doom ku mënta ràmm ki ñu ko tuddee ak ndeyam nga xam ne sëñ Mbàkke Buso loolu la daal di tontu kon nga wàññe ne kim mu ko tuddee mooy soxna May Kabir kon nekkutoon ku ndaw euh, xam naa ngir jëkkanteeg waxtu wi euh, sëriñ Seexuna Buso Cumbuleen euh, li ñuy ñëw ak rek mooy digganteem ak waa kër Sëriñ Tuubaa ak njabootam digganteem ak waa kër Sëriñ Tuubaa ak njabootam ndax kenn ku ci nekk yaakaar naa ne am na lum jëflante ak yow ba am na ci ñoo xam ne sax incha allah ci biir dana gën a yaatu ci ñu mën cee xam ndax cërub góor la yor loolu mën naa fer ci biir incha allahu taala kon sëriñ Seexuna bismillah bismillahi rahmaani rahim jërëjëf sëriñ Aafiya ñu ngi rafetlu bu baax kàddu yi nga xam ne jot nañ koo dégg ci sëriñ Bouchra Samb ak sëriñ Mamoor Mbàkke xam sa diine ñu leeral kan mooy dëggi-dëggi soxna Maymunatul Kubra te liñ jot a wax ci moom doy na sëkk ak cër waxuma askan wi waaye li ñu wax ci diggam ak Sëriñ Tuubaa doy na sëkk ab cir kon leneen luñ ciy tegaat it diggam ak keneen ku mën a doon it mm-hmm. dañuy feeñal rekk moom ni mu doon rafetale digganteem ak ñi mu nekkal mm-hmm. waaye cër bu mu amaat ci keneen it mm-hmm. du yéeme ndax du am ci kenn ciir bu mu amut ci mm-hmm. buñ xoolee nag ni mu doon jëflanteeg ñooñu diggam ak ñoom loolu dañuy delluwaat ginnaaw tuuti ñu xam ne tomb boobu day tomb bu am solo ndax lislaam ci boppam li ñu tuddee alfiqhul islaam yi ñaari xaaj la dafa am lu ñuy tuddee fiqhul ibadat am lu ñuy tuddee fiqhul muamalat muamalat yi nag dafa bari moo tax jamu la kenn ku nekk ak na nga muamala ak moom lépp da cee tàbbi léppi dund gi moom soxna Maymunatu nag liñ jàng ci liñ bind ci moom relation bi doxoon diggam ak njabootu sëriñ Touba gi day mel ne mooy bi doxoon digganteem ak sëriñ bi ndax njabootu sëriñ Touba gi soxna ja mooy ki ci mag la doxoon digganteem ak moom nag ci ndigalul sëriñ Touba la bàyyi ko woon ñi jël kàddu léegi junj nañ ko moom léppam ci ndigal la tege woon bi mu tollee ci jàng alxuraan sëriñ bi da ko yóbbu jox ko sëriñ daam Abdourahman Lo bi mu tollee ci jàng xam-xam mu yut ko nijaayam yooyu yi nga xam ne ci la jànge waaye bi mu tollee ci ñu war koo tarbiya nag jàngal ko lan mooy ak taalibe da koo booleek magam ju baax jii di soxna Fat Ja mu jàppe ko nag jëmmi Serigne Touba mi leen boole di ko di ko xool bët boobu jàppinoo nag dafa feeñ ci ni mu jëflante ak moom ndax bu ñu xoolee sëriñ bi day mel ne soxna Maymuna dafa seet ki nga xam ne sëriñ Touba yemalewu kook dara muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu xool nam ko jàppe ak nam doon jëflante ak moom mu roy loolee sëriñ bi ci ni mu jëflante ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam jëflante ceeg sëriñ Touba. Cheikhul Xadim radiallahu anhu ku ne xam na ne digganteem ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam la fa doxoon mooy lim tënk ci muxaddimatul amdaax ñépp di ko jàng muy salaatu sitta bi matxi sitta juróom benn weer yoo xam day julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam juróom benn weer ci des mu di ko soxna Maymuna nag wax nañ ni dafa saxaloon juróom benn weer yu nekk moom it mu dajale ay hadiyaam yóbbul ko soxna Fatja mi nga xam ne moom la ko Serigne booleel mu koo jàngal ak talibe kon day mel ne mi ngi doon roy Serigne bi ci nam jëflanteeg yonente bi ba am ca moom lam ca am moom it mu jëflanteeg sëriñ bi noona ba am ci sëriñ bi moom it li bëgg ci moom waaye nag mu di ko jaare ci soxna Fatja moom yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi booleel. tegoon ko it nag fu kawe ndax loolu bokk na ci liy tax li bëgg ci moom mu am ko war ma ji dox diggante nit ki akub sëriñam ñu di ko tudde aadabu suxda joxoon na ko ba mat sëkk bokk na ci firnde yi tegtale loolu nag nga xam ne boo delloo ci ñiy jàngale loolu muy aadabu suxda muy ulama ub tarbiya yi wala suyuxu tarbiya yi dana néew nga gis ku delloo ab sëriñam worma ak wegeel ak kiliftéef ba mel ne nii soxna may Maymuna du jëflante ak soxna Fadja bari na ay firnde yoo xam ne bindees na ko ci waaye buñ ci jëlee benn day doy misaal te bokk na ci xissa bu siiw boobu yi nga xam ne bi mu nekkee bi mu demee Kawlax te sëriñ seex soxna bëgg am ci moom aw photo mu xamal ko ne kon day aaje mu dikk Tuuba laaj soxna si ndigal ba am ko ci dog koo mën a def ku ne xam na ne loola boo dee xool day mel ne lu woyof la loo xam ne defoon nga dara mën na ko caa bañ a fekk waaye mu jubloo jàngale nag kilifteef naka la ko nit ki di joxe kilifaam ba mu mat sëkk loola firnde la ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaye naka noonu Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne it moo doonoon tawub Cheikhul Khadim radiallahu anhu ni Sëriñ Tuubaa jëflanteeg soxna Maymuna noonu la Sëriñ Mouhamadul Moustapha jëflanteeg soxna Maymuna ndax li ëpp ci li ñuy nettali ci moom wala ñu di ko bind mooy doomi Sëriñ Tuubaa yépp daanaka tudd nañ ko tur waaye loola nag su fekkonte ne Sëriñ Tuubaa tuddewu ko aw tur su boobaa lay gën a yéeme kon waaye ndeem seen waajur waa ko tudde doom yoo xam ne seen seenub jigéen la di seen rakk ñoom it du doon kiimaan ñu roy seen waajur wa ci tudde soxna Maymuna doom Cheikh Mouhamadul Moustapha tudde ko doom waaye nag loolu it lu mat a taxaw seetlu la ndax noonu nga junje ci li sëriñ Mbàkke bu sa wax turandoo moom nit ki bu la doyloowul amul ci yaakaar du la tuddee doom waaye nag yaakaar ji ne ci moom ak doyloo gi sëriñ Tuubaa daf leen koo wan ca li sëriñ bi wax léegi ca ba mu feeñee jamono tamu ne cërub góor lañ ko fàgguloon ak yam ko waxaat ginnaaw bi ci bi mu serelee xolam ba ne ko dindi nga tikki xol ji nekkoon ci man sagal nga ma waaye yal na la yàlla sagal kon ku sëriñ Tuubaa joxoñ njabootu sëriñ Tuubaa gépp wuti ko jëflanteek moom na sëriñ Tuubaa jëflanteeg moom loolo it day gën a wane darajaam waaye nag du doon kiimaan bu dee ku mel ne Cheikh Mouhamadul Fadilu moom it wax nañ ni tudd na ko lu mat ñeenti doom gis naa ko ci mbitt waaye nag da cee am lu am firnde ndax am na ci koo xam ne bi mu ko ko tuddee ba noppi it daf koo yëkkati woon jox ko ko boole kooku leetar am lu muy sàkku ca leetar ba ñaan googee nag day mel ne dafa dox diggante sëriñ fàllilu ak soxna may Maymuna waaye sunu borom nongul na ko ko jàpp naa ni lu wéree noonu it taxul mu yomb lool ndax lii mbindum loxol Cheikh Mouhamadul Fadilu la muy lettre bi nga xam ne dara sànkoogu ci kon dana dana dana aaje ñu wane firnde yoo xam ne li ñuy wax am na fu mu am na fu mu tëdd bi mu koy jox soxna si lettre bi li mu ci bind mooy bismillahi rahmaani rahim أيتها الكبرى طلبي من ربك كونته ميمونة بجاهك وأن يكون بيتها ميمونة في كل شيء مطلقا آمينة نخمني سوحنا ميمونة الكبرى غوغي نيو جفنديكو موم لمجو جتور ولجل أيتها الكبرى نكو أطلبي من ربك نغا ساكو تي سبروم كونته ميمونة maanaa kii ma lay jox mu doon koo xam ne may muunatan bi jeexi ki day nekk ku barkeel ci sa daraja na ko sàkku ci sa borom wa an yakuna baytuha maymuna fi kulli shay mutlaqan amina loolu it ba tey day firndewu te nag na sàkku ci sa boroom moom mii ma lay jox néeg ba mu bokk na nekk néeg bu barkeel ci mépp mbir mu ma mën a doon nga xam ne daf koo itlaaq nga xam ne tënku ko ci dara na doon néeg bu barkeel soxna may munatu moom mi nag mooy soxna may galas di doomi soxna maam awa fay mook sëriñ abdul karim Mbàkke ñëw bokk cheikh mahamadul fadilu bi lettre bi noppee gis nga ko signature am a ngi ci bindaan na ci suuf ne alhaaji mahamadul fadilu Mbàkke alkaatib alqaail taqabal allahu minhu wa liman qiila fiha hada amin اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وخديمه داتي داف كاشم كون لولو لو ام فيرند لا لولو موم firnde la loolu moom féete na boor bokkit ci relation yu rafet yooyu doxoon nga جونجو تي كامل بوبو mu دون بيندلو nga xana moy bi gëna a siiw muy kaamilu soxna Maymuna bobu nga xam ne Cheikh Mahamadul Fadilu moko ko won bu de ko melni Cheikh Mahamadul Bachir moom it relation doxine wu rafet woowu mo doxone digganteem ak moom ndax buñ fàtte ne dafa am ay jikko yu nekkon ci mom yo xam dañ ko séré saxal ko yooyu nag ku mu nekk ci yow jëflante ngi jëflante bu rafet dana la yomb ndax dañoo seere ne bokkoon na ci jikko mi gën a ràññeeku ñetti mbir yi li ñu tuddee taqwallahi li ñu tuddee silatu rahim li ñu tuddee islaaxu zaatil bayn ñett yi dafa nekkoon mbiram te ku ne xam na ni taqwa kum ne ci yow jamono bu nekk nag da nga ni muraaxaba sa boroom ci lépp loo xam ne yaa ngi koy jëflante ak yàlla wala yaa ngi koy jëflante ak keneen loola dimbali woon na ko lool ci jëflante bi mu doon jëflante diggante mag njaboot Serigne Touba gi Cheikh Mahamadul Bachir coocu la awoon ak moom kii nga xam ne Serigne Bouchra na ko ci njëlbeen mu Cheikh Abdoulahi nga xam ne dafa maase ak moom lu bari yàlla dogal ñu defandoo ko maase ñaari xasida yu sell yu am solo yooyu wax nañ ne moom ak àggoon na ci moom Serigne Abdoulahi léeg-léeg daana ko bàyyee këram ay weer yoo xam ne moom du ci lijjanti dara yoonam du ci nekk lépp soxna may mënut la koy bàyyee loolu nag ak doy loola ak wóolu ak jaxasoog biir bu dee Cheikh al Ahad wax nañ ne moog Serigne Saalix daanañ ko fekk lu bari Daaru Salaam daanañ ko fekk lu baree bari loolu di tegtale ni jëflante woon naag moom jëflante woon naag ñoom jëflante bu rafet boo xam ne day mel ne ñaan goo gii nga xam ne موم لا دان جوخه تا مو بايكو سي شيخ شيخ الخديم رضي الله عنه سخنا ميمونه مكو كو جوخون سيرين شعيب مبكي موم سيرين صالح واو سيرين شعيب مبكي موميت ديروم لي في سخنا سي دي نيك واخنا ني كرم داكو كو فيتالي وون داو فا لجينتي دار لو فا مانا خيو داي واخنا ناني باي با سخنا سي نيو تا كون خمنا سيرين شعيب نكو سونو بروم بيندي موميت ci tënk ga ko yàlla tënk ak organiser gam organiser mbiram képp kum dem ba doylu la bàyyee la léppam kooku it mën nañoo xoolaat bu baax yan jikko la amoon ak yan qualité la amoon kër gi lu fi mas a xew ba ci wax nañ ni xottil ndima njaboot gi sax lu mel ne wutal leen ay koddaay yooyu yu ni demee dañuy wax ne nañ bàyyi ba soxna may mënatu ñëw nga xam ne ñoom ñëpp kon dañ ko defoon mu nekk seenub jigéen waaye nag ñuy bàyyi xel cër yam am ci digganteem ak borom ndax ciri yi am mom mom lañ ko fàggul lolou kaddu serigne touba la kon mënuñ ko ñàkk def noonu ni ñu ko def serigne Abdul khadir radiyallahu anhu moom it ak mom mom leer na naññi xana relation yi amone sax diggante serigne Abdul khadir ak njabootu soxna Maymuna te gi fi bayyi lolou mom ñi fi fekkul soxna Maymuna yit te gis relation yoyu war nañu xamne kon amna amna amna lu ko sabab Cheikh mohammedul murtada naka noonu wax nañ ne sëriñ Abdul Ahad moom daana wax ne sax képp ku jaxasoog moom li ngay réccu mooy la weesu maana yeex nga xam moom moom ngay moom ngay moom ngay réccu noonu mu doon jëflanteeg njaboot gu góor gi nag mooy jëflante bi doxoon digganteem ak njaboot gu jigéen gi tuddoon naa ci rek soxna Fadja waaye ñeneen ci des ñëpp ku mel na soxna Astu moom soxna Mamor Diarra ba ci njabootug ñi nga xam ne sax dafa bokk ak ñoom euh, bokk gi muy njabootug ñi nga xam ne xëy na duñ doomi sëriñ bi waaye doomi sëriñ bi lañ ci bokk noonu la doon jëflante ak ñoom waaye soxna mominatu mi nga xam ne nag doomi sëriñ bi la moom it firnde ji nga xam ne indi nañ ko ci diggam ak sëriñ Fallilou manees na koo indil firnde moom ci digganteem ak soxna May ndax xam nga bind moom dañuy wax ne day day des ki bindoon nag mën a nekk ci ron suuf diir bu yàgg waaye mbind moom day des diiru faw loolu tax bind am solo lii moom it firnde ju ju ju mat a bàyyi xel la mbindum loxom soxna mominatu Mbàkke la mu jëmee ko ci soxna Maymuna booba it dafa yëkkati doomam di ko ko jox muy maam Anta ne ko ñibbisi na ci say loxo sa dooma ngoog nga xam ne asalaamaaleykum yaa binta cheikh moom noonu la jëfandikoo cheikh al xadim maa ngi lay nuyu te di la sant soxna Bousso moom mii nag maa ko booleeg maam Anta ñibbisi na ci say loxo sa dooma ngoog defar ko ba bu mu yàqooti mukk duniyaa wa wa wa uxra defar ko ba bu mu yàqooti mukk duniyaa wa uxra ne ko bu ko yore ak njuréel yore ko ak taalu bi maanaam bu ko yore ak njuréel waaye yore ko ak taalu bi ne ko lu taalibe yi di def ngir Seyxul Xadiim na koy def lum ci am addiya laa la ko jox addiya laa la ko jox doy nga ma ci zahiran wa batinan daal di nag tamma ala yadi muhib muhibbatikum xaqan mu'mina loolu di lettre boo xam ne moom it lettre bu leer la soxna may soxna mu'mina bind ko ci loxoom loolu nag day wane ne kon moom amante woon naa ki bokkam ni mu amee woon sëriñ bi doy loo wutoon cër ba mu am ca sëriñ ba ba sàggane ñi mbokkal sëriñ bi loolu it nag dafa am luñ ci war a tirer ay leçons yu ñu ci war a jël leçon yi mooy ndeke nit lu mu baax baax ak lu mu am am ab cër fa yàlla na bàyyi xel ne mënta gën ay mbokkam mënta gën ay mbokkam mënu leen a génn it mm-hmm. te it jëflante ku mën a doon jëflante ak say mbokk mooy la ca gën na say na nga jiital ci sa jëflante sa diggante say mbokk ci lépp mm-hmm. moom nag nam rafetal digganteem ak Serigne Touba noonu la rafetal digganteem ak njabootuk شيخ الخديم جي شيخ محمد الفاضل واخنا ني بو فما سان ديم ديكو سيتي دافا يوبو دافا يوبو واي اك طالب لافا يوبو امنا بيس بو خامني واخنا ني دافا نييو بيم ديكي ني ني بير اوبيغول موم ييغلو وول واي دافا دال دي جال سي غيناو رك لو ملني بان مو جال سي غيناو توك نستوت ام بوكوم بوبام موكو فا فك مو خامني توبا تسخ سخ كوكا يت سخنا ميمونتو موكو مك mom bi accès rek da dal di jàll fekk ci Cheikh Mouhamadul fadil ci bir dal di dox ay soxlam gennat am ci ñi nekkon ci kër gi ku wax soxna may matul Kubra ne ko mo ne day bo yëglu won batay dem nga wala nga def niki def mu ne ko mom xëy da ko sañ man nak dama ko sañut nga gis ne mom lam fa indi ak war ma jëm jox Cheikh Mouhamadul Fadil taxul mu jaawale ak ki duggit cër bi mu am ci boroomam ak loolee mu def maanaam sañ-sañ ba mu ci am moom dana xëy na moom mi ñëw jàll moom la mu def da koo sañ man nag lii ma def rek mooy li ma sañ loola it ay bind la ñu mu doon joxe waaye boo dee xool ñoom jamono bu nekk dañuy jëf wala ñuy wax loo xam ne ñun lañ jubloo jàngal ñun ñëw seen ginnaaw waaye ñoom weesu nañ foofee kon lii lenn la ci relation yi nga xam ne doxoon na ci digganteem ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi mu relation yu rafet yoo xam ne kenn ku ci nekk mën na cee jël ay bind di ñaan nag sunu borom subhaanahu wa taala mu fayal ñu ko bisib bii ñuy séntu it ñu ngi ñaan sunu borom ak lañu caag jàmm lépp loo xam ne def nañ ko fa muy lu ñu fay jàng muy waxtaan wu ñu fay amal lépp sunu borom nangu ko te ful ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. barakallah jërëjëf euh, Serigne Seexuna bu sa cumbuleen indi nga lu am solo ci soxna Maymunatu Kubra digganteem ak njabootu Sëriñ Tuubaa gi euh, bokk na ci li gën a yéeme ci biir wax ji li ma ci dégg dafa mel ni moom joxe sax. barkeelu sëriñ bi mu jëm ci doomi sëriñ bi day mel ni da ko yàkkamti te am na ñoo xam ne buñ ko amee dara danaan ko perte yiw wala dañ cee mosle ndax li nga wax ci sëriñ Saalix nee na sëriñ Saalix bi muy ñëw di ko laaj di ko barkeelu boobu bi muy jël butéel bi di ko ko jox xelli lu ko ci dafa jël lépp jox ko ko yàkkamti ko ko jox nga xam ne sëriñ bi ci la sukkandiku wax na ni ñaan yi muy ñaan ci suuf si ca lay ca la ca la koy jaxaseeg loola ci laylatul xadar wala wala yu ni te loolu bëri na ñu ko defal ci ay barkeel yoo xam ne joxe na ko te loolu mel na ni kon lu amoon ci sëriñ bi yombul xëy na ci ñeneen waaye yombal na ci moom euh, sëriñ Gana Messere euh, xam naa ne dañuy daal di ñoo ngi jégg lu baax euh, ngir njëkkante waxtu wi rek ak dundam dëgg-dëgg ci sëriñ bi ba waral ñépp nawa ko moom soxna soxna soxna may mun a loolu incha allah tam boobu lan lay daal di jox incha allahu taala jërëjëf sëriñ Afiya Cobaan jërëjëf sëriñ Busra jërëjëf sëñ Mamor jërëjëf sëñ Cheikhuna euh, bunt bi ñu tànn ni ko bokk yi tàmbalee waxtaane moo di dafa doy sëkk ngëneel sëriñ bi tànnal la boppam nga bokk ci njabootam ndax sëriñ bi li tax lu mu tànn yéeme mooy daje day daje bëggu yàlla ndax moom moo waxal boppam ne neex naa ku neex yàlla te lu ma neexit neex na yàlla moom sëriñ bi shitu alladhi shaa al ilahu wal ilah yashaau ma shitu bila durrin wala kon lum lum tànn rek loolu mooy tànnu tànnu yàlla te moo tànn euh, soxna Maymuna diggam ak sëriñ Touba nag ak dundam mooy dunduk Serigne bi rek moo di dundam te dunduk sëriñ bi mooy dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sax ci jaamu boroomam ak di ko wéetal ak di tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa ak di xettali bindeef yi di leen teg ci yoon woo xam ne day tax nu mën a mucc loola ca la nekkoon ba ngërëm yu bari yi dottiku ci moom ak cër yu rëy feeñ ci moom waaye doy na ca nag ni ko suñu Seexuna doon waxe ña doon wax ci moom kenn ku ci nekk dafa yëkkati xalimaam bind waaye moom it la lay firndeel digganteem ak Sëriñ Tuubaa bokk na ca mbindum boppam moo xam ne da koy bind jëmee ko ci melal nu sëriñ bi waaye mel melal nu it moom ci boppam ni mu mel ndax na mu mel li la koy won mooy ni mel ci borom ma mel ko ci sëriñ bi euh, ba muy tàmbali di wax dafa wax ne tàmbalee ci tur yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu dul moom di wax ne maa ngi sakku nag njëggalu yàlla te loolu ku miin mbindi sëriñ bi ak i waxee namit xam ne sëriñ bi noonu lay waxee mooy wane ne maa ngi delluwaat ca sama boroom ca cosaan la ci di ko tuubal ak di ko jéggalu ci mépp mbir di waxit ne tudd naa seetlu yàlla sama borom ndax mankat ku tooñ sama bopp laa sama bakkan laa waaye maa ngi laaj njëggalu yàlla jëkk may tàbbi sama bàmmeel nga xam ne kon day day laltaay la muy wax lépp wax ne yow suñu borom nag ma jéggal samay rëcc rëcc yépp te fegal nu sawaran te fegal nu ab xisaab ak perte wax ne man kat as njaam laa su néew kattan waaye aw ma nag jann yaakaar ci keneen ku dul ak sa ngëneel yaay sunu borom yow yow yàlla yaay yërëm jaam ñi kon na nga nu yërëm daa di wax ne amul nag sikk sàkk ci ne jaam ñépp jaam yàlla kon yow sunu boroom nanga nga nu muccal waxit ne yow yàlla yaay jubal ku la soob kon na nu jubal nun ñëpp waxit ne yàlla na nu yàlla boole def ñu ci ña nga xam ne daf leen a jagleel ñu jëfe diine te jaare ko ca fiqam waaye bokk ci ñi nga xam ne dañuy jëfe tasawuf waaye am yaqiin seen diggante ak seen borom nag sax ci jëf ya wax ne soxna may mii di doomi Serigne tuba moo lay sant yow yàlla ci lépp te di la gërëm waxit ne na nga julli te sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu salaam ak képp ku ca moom yow it nag nu may na may yow suñu borom mbooleem way gëm yépp ak jub ci barkeb Serigne Touba ma nga xam ne dafay ram mu ëllëg foofu nag fi la fi la leerale sëñ bi da day wax ne nag ama isaa jahilta cheikhuna al makki fa innahu waarisu ahmad makki kii ma wax ne yow yàlla na nga nu may ci dara jaam boo ko réeree mooy ki donn rasulullah xam na kon mu nee na bu fekkee réere nga yaa ngi wër di laaj kan mooy sëñ Tuubaa soxna may ne jërul guddal mooy ki donn yonent bi sallallahu alayhi wasallam te donn gi mu ko doon it donn ko zahir bàyyi baatin donn ko baatin bàyyi zahir léppi yonent bi la sëñ Tuubaa donn mel na ni am na mbokkam muy sëñ maam Balla Mbakke Misra moom Maamor Jaara بمو تي ليرال دا لكنه ورث المختار في عمل وفي مقال وفي خلق وفي سير كون كون لبي لبي رسول الله لا سنج با دون لاكو واي كير با نخني ساك تفا مختفى نغا خامن كون دا فا دون يونت بي صلى الله عليه وسلم تي ملوم اك روي كو تي جيفين سخنا ماي نينا بو ريري سنج توبا موي كا دون يونت بي له بي تصديق وتوكل وزهد ورجاء وتبتم ci dëggal gu sax dak goo xam ne te sëriñ bi bokk na ci màndargaam nga xam daana waxal boppam ne ñaar laa rawee ñëpp muy dëggal ak sellal am na naar bu ma sa laaj sëñ Bachiru Mbakke na ko sa bàyyi sëñ Tuubaa ndax lim liggéey rasulaay kenn mas nga ko def lim liggéey rasulaay kenn mas na ko def am naara ko sëñ Bachiru sëñ Bachiru na ko loolu mën mii jaaxaloon na ma ba ma laaj ko sëñ bi waaye la ma sëñ bi ton dane ma man mii de jaaxaloon na ma ba ma laaj ko sama borom ne neen lam lam ma ca tontoo mooy dana amut ndax da nga leen a gën nga xam kon li sëñ Tuubaa jiitoo mooy dëggal ak sellal sëñ bi nee na la ca la ca la rawee ñëpp nga xam kon sëñ Bachirou laaj nañ ko mu laaj ko sëriñ bi sëriñ bi tontu lool mu ne ak jëmmi wekki ci yàlla nag nga xam ku xam sëriñ bi xam lam wax boromam inni jaxaltu fi daarayni yaa siqati xisnan xasinan fa kun malja yàlla sëñ Tuubaa moom amul dara lu kooj ak ngëmam la sëriñ Cheikh thiorom sëñ Mor Sëli doon wax ne وهو السليم من الآفات جملتها وما نفاقا بما إيمانه مزجا خمنا درك كوجل جم جم جم يالله تي مم سنجوا خمنا لب لو نيو رك برام مم رك لي وكيلو برام مم نجح لبم وينك دد أدنى خمنا كنا تي مم من رواتنا نك القرآن نك حديث مجانغال نك وخنا batay julli ci yonnati bi alayhi ñaan sun borom mu boole ñu ca ña nga xam ne bu ëllëgee yomal xiyaam dañuy bokk ca njabootu Serigne Touba ga bokk ca mbooloom Serigne Touba mi te Serigne Touba ñaari mag ñi ku ne mas na la wax dara Serigne Demba Kebe ak Cheikh Massamba Diop Sam mas naa wax Cheikh Massamba Diop Sam nako yomal xiyaam de bari fay rakka and fa kuñu rusu ko gën mu nako bari fay rakka and fa kuñu rusu ko gën mu ne na boole bari rakka ak and ak ki rus waxna Demba Kebe yit mom Serigne bi tok ba yak mu nako Demba Kebe mu nako ko mu nako am serigne bu mat serigne mu xam la nga xam ko jarna lu ne mu ne ko alhamdulilah bañ la amé xam la serigne bi ne dënn ba yag mu ne ko yowmal xiyaam gënu jëm dey ànd fa ku ni rus mo gëna yom nak rus la mu ne ko ñoo ngi sant yàlla bañ la amé nak ba nopi xam la tañ rus la mu ne ko loola tax ba yowmal xiyaam gënu jëm yàlla mi borom dend bi bu doon taxañ dend bi lum gaaw gaaw gaaw ru guma ma dana la won sa keuruk këru do ma yakamti am nar bu yuxu ca kaw serigne bi ne ko yàkkamtiwun ko nak dañu fa fekk loolu du ak yàkkamte gu tax ni dana fekk kon moo tax soxna si ñaan bu ëllëgee nu bokk ca mbooloom Serigne Touba moom yi di kuréelam daal di wax nag wax nu jàpp Serigne Touba nag lu muy jariñ mu ne fa man tamassaka bi cheikhina bila shakkin wala tadadu bi naalal wala mooy lii xew doomi Serigne Touba yépp ñoo bokk waxin may dane ku jàpp Serigne Touba te déng déngi woo sikk sakk woo kaw rek ngay jëm doo jëm suuf boo demee sëñ Modou Moussa dane woon li ma Serigne Touba woon li ma ci gis li ma gisagut laa gën a wóolu gëm ci li ma gis kon kon mooy wóolu sëñ Tuubaa fa lu dane woon sëñ Tuubaa de dañ naan ko nikk na ko nankutum na ko katiw na ko tarawliis loolu mooy fa man tamassak bi cheikhina bi la dëkk yaa mooy mooy amul sikki sàkk rek mooy noona ngay toppe koo ca topp sëñ la mu waxoon gëm wóolu yaakaar loolu li muy teg la mooy doomi sëñ Tuubaa yépp noo bokk jenn melo bokk wenn jëfin bokk jenn waxin moo tax soxna may moo nu jàngal nii jamono xewee ku ne naan jàpp sëñ bi ak wéetal sëñ bi ak nangam ba mu koy wax بابا نين جامونو اموني ما يخم فمن تمسك بشيخنا بلا شك ولا تذبن نال الغلا واي غيس غلام جي تغال لانه خير من السوداني في الشرق والمغرب والبدايه كون سن بي گن تي پنكو مو گن تي ساو مو كون موم نيكول دي دندال دا فو خامل ني تا تا بو دون شيخ ابراهيم جو المشاري نانا سا يو دي سن توبا اك كين نغا ييك ني گانچخ كي اك فيبي سوفي اك سن توبا وقتو دون كن أهل البلاغة يي أم نن لام من يوم أنا تجد فهني إن كان الدل بلاغة ألسن تمدحه فالأرض تمدحه ونبت والشجر كون غربي دني تجسني بعان شاك تجسني أنا سا يوتو في بلب نيوتل سن جوا مرام سوف سيدا يجكن على ساك خد بن ما في كجور ولا في بوالين مثله تقيا نقيا إن خم جم سوف سيدا لدي تهل سا يوكو نيوتل مرام سوكنا ما ين نحن أمول بينك أم سو نجلا أول بينك بو أبي سو أبو بينك سير بنا يوم دنا نجلا أول بو أبو دنا لا بشرخين بل لا بخرب تراهم manam nga xamne mëno gis ku melni mom penku mëno gis ku mom saw kon soxna may mëno a loola la wax ne seigne touba mo gën ci penku mo gën ci ci saw gën ku wex gën ku ñul waye nak daal di wax ne aadana allah min alladhina lam yatamassaku bihi amina kon nak yàlla nanu yàlla musal nak ci ñak jàpp ci sëriñ bi nga xamne kon la seigne bay jaxat na ku àndul ak mom dara la dul mom yàlla bëggul mom ku dëddu bàmba moy day tektale ne ku won ginaaw seigne bi

ak lim liggéeyal sëñ Tuubaa ni ko sëñ Tuubaa gërëmee mosumaa gis ku mu ko def nga xam ne jot sëñ bi te sëñ bi moom benn gel mbateyam dong ci nit mooy jagal adduna ak alax li may wax ne li sëñ bi di def amul relevé amul yeesalaat amul cheikh yii cheikh nañ xalifu bees ñëw na nañ dem binduwaat déedéet benn baat ba mu wax maam Thierno la wax sëñ maam moo Diarra moom la wax maam Cheikh Anta moom la wax Cheikh Ibrahima Fall weesul jërëjëf te jërëjëf yi sëñ Tuubaa jooju moo moo matale adduna ba sëñ bi wax ne desatul ci kaw suuf mel ni mbindeef moo séen muy dem te sàkkul sama barke lam yabqa fi lxalq si waa man yatlubu barakati wa qad atani matlabu la koy indi nag mooy barakati waasiatun wa baqiya baqa umul ku dehibati safiya comme comme comme lan lande ba toll ni yàlla rek daj fépp ku làmbit moom ngay làmb looloo taxoon soxna si tabbi woon ci biir loola la taxit mu mel noonu mooy melaw sëñ bi rek la doon ndax sëñ Tuubaa moo wax ci li ñu koy doon ne sëriñ Tuubaa da daan jàngale xam nga mas naa toog ci njëreem dégg ñuy wax ñenn ci doomi kilifa yi naan doomi sang naan sang bi ak yaaram bi maanaam di baamtu sang ak yaaram sëñ bi dajalee leen ñoom ñëpp ne dama dégg ñaari baat yu ne la muy sang ak yaaram ma leen laaj ndax xam ngeen mooy sang ak lan mooy yaaram ndax sang ak moom baat bu ti léegi sax ci la gën a xew mook mook jàmbari sëñ Tuubaa la ne nga xam ne am jàmbar amatut léegi ku man dara rek cérémonie ba dugg baat ñuy jëkk yooxu mooy jàmbari sëñ Tuubaa nga léegi kon kenn doonatul jàmbar mooy mooy sang yaaram yi noonu la noonu la yaatu waaye sëñ bi ko la sëñ bi ne ab sang de day mën a wut yàpp wata boor wut cere lay togg ko joxu nit ñu fanaan cib deram te bu xëyee defaat ko ab yaaram mi day mel ni dex ga fa ndar tubaab yi sax ci la ñuy sotti seen poti guddi yi waaye bu ñu xëyee ko wutim ndox am ko lii mooy sang ak yaar kon gis nga sëñ bi day day jàngale melo melawoo doon ngim doonub sang nag doonub yaaram loolu la doon ci ci sëriñ tuba te sëñ Tuubaa ci loolu lañ koy doon mooy lëggéeyal rasulullaahi sallallaahu alayhi ak alquran te mooy euh, bi xidmati kat yi kitaab yi wal hadis yi yasbutu laa bi dahabin mawruusi woowu melo nag moom la amoon ba ba ko taggkat ba di tagg di nu ci jàngal dara dafa wax ne ahina ala man ida janna zalaamu badat shamsu italaat tuniiru dunyaha tuxyi layaali kullan bi salaati ala nabiya ahmad al muxtaari shafia nee na soxna soxna si mooy koo xam ne sëñ Tuubaa la doon ndax bu guddee ba nit ñi tëdd di nelaw ma ngay dundal guddi te sëñ bu Buso ma waxoon ne adduna bi bu ma saa maase ñoom ñëpp di nelaw bay yandoor sëñ Tuubaa moom day taxaw di jàng alxuraan fa kam min layaalin baataha alxawsu taaliya ala suwari tartiir wal kawnu naim loolu la sëñ Mbàkke Buso wax bari waa na nit ñi di nelaw bay yandoor sëñ Tuubaa di taxaw mu ne soxna Mayit saa yu guddi ma saa jot ci lan lay jeexal ak dundam di ko ci dundal mooy salaatu ala nabi mu ne bari waa na lu ma fekk soxna May kurusam ne ca loxoom. waaye da cay saxal nag di di tudd yàlla wala muy jàng alxuraan ci laab wala muy jàngal ay doomam ay teggin mu ne loolu moo nekkoon mbiram mu ne soxna si nekkoon na koo xam ne jaamu yàlla gi mu daan jaamu yàlla sax day dundal réew yi réew mi waaye won won gi mu won ginnaaw adduna yit nekk na njaqare ci ñu jamono ñëpp nga xam ne wéetal wéetal gi yàlla te melaw wu jag woowu ko suñu borom mayoon moo ko may mu mënoon a jëflante ak ay bokkam ci melawu sellawu nekkoon ku bëgg Serigne Touba koo xam ne la cay firndeel mooy ni mu doyloo woon xasaayid yi xam ngeen ne waxoon na ne alhaadi yi boo ko mokkalee sëñ bi nee na boo génn du mën du mënta génn ci yow te it doo doo mën a génn ci moom nga xam ne boo ko mokkalee duutoo mën a génn ci sëñ bi sëñ bi du du duutu génn ci yow doyloo gi mu doyloo xasaayid yi doyoon na ci rek waxoon na ne wakkaana xaqan alaynaa nasrul de lu ay rëy rëy buñ ko fa jàngee day mel ni sawara wum sotti am ndox loola wóolu gi mu wóolu sëñ Tuubaa ak ak doyloo gi mu doyloo sëñ Tuubaa moo tax buy dellu ci luy aaree ko musle sax ci ci yëfi sëñ Tuubaa lay lay delluwaat muy muy delluwaat ci xasaa yi di xadimiye melo woowu loola moo taxoon am na bis dafa fonkoon sëñ bi ba fonk ñooñ sëñ bi am na bis maam Thierno borom daaru nekk njeereem bi muy ñëw soxna may mun a lalal ko ay sër cam mbeddum sëñ Mor ma ne da koy da ko koy lalale ngir tertoo ko ko borom daaru yëgut ne soxna maye nga koy xaar mu dem sukóor yi ba mu demee ba sippi ñu ne ko soxna may nga ca mbeddum soxna sëñ Mor jëbuma lal fa ay séet di la xaar borom dëru takkaat ñëw ne baayam rek la ma xoolee ba tax mu def ko may dama koy def ngir terelewaat ko baayam ndax dabu ca xol ba nga xam ne kon xam ngim xam ni borom daru mel sëñ Tuubaa waaye borom daru gis nga dama ko ko delloo loola moo waral ñëw na fekk ko bayti bis bi muy génn néeg bi sëñ borom daru daa jël jëmmi néeg bi ak li ne ci biir néeg bi yépp jox ko soxna may mun a addiye kon loolu day tegtale mela woowu nu am ci diggante sëriñ bi ak fonk gi mu fonkoon sëriñ bi ak fonk gi mu fonkoon ñooñ sëñ bi kon yàlla nu ko yàlla fayal te yàggal fi njabootam gii fi nekk nga xam ne ni ko sëñ Boussra waxee boo demee darul Muxti noonu la mel ndax doy na ci cëram rek bi soxna sëñ Moustapha wàcc feeñee jamono sëñ Moustapha may soxna si mel ni lu tawat yaram wi mu dem njeereem sëñ bi wax nañ ko yóbbu fuñ ko taxawoo ngir faj ko jëmmi sëriñ bi moom moo ñëwal boppam ba ca kër ga nga xam ne yitte te sëñ Touba maanaam lii xew léegi nga xam ne lu ne ñu ne sëñ bi nangam nga xam ne sëñ Touba ku amoon jot la lañ ko jàppe fi ne lii lii bokk na ci li gën a metti cer na mu ne Mbàkke cer na mu ne Mbàkke wala di nga xam ne da ngay wax ne borom daaru moom fu mu nekkoon ci dëgër bopp ba wuy siwut waaye sëñ bi jot mu am ba sa sëñ Mbàkke nee na sëñ Touba ak lewetam yéex a wujji woote bukku ci nee kenn ku ne ci noonu daana gannaa yoo lu mat juróom fukki kilo ci ute yi ngay liggéeyee waaye boo déggee baat ba xel waa la koy wax ku la mas di woos it bu ne la kaay wuy sëñ bi tànk ba ngay topp waaye day samp xelam te léegi day sëñ bi day tox fee di jël mbéeru naan diw mu ne diw mu ne diw mu ne diw déedéet te ku ko mas a tax a jóg ngir di la seet si jafe na boo ko doon seet foofu benn bi menn mag la mu tawat julli si wut sëñ bi xaar ko dikkul sëñ bi julli si waxtu sëñ bi dem di ko seeti ba mu ko séenee ne bërët ci lal bi sëñ bi daa fas say loxoom nuyu ko na ko bett nga ma ginnaaw dese woon nga dara ci kattan gumal nii mënoon ngaa ñëw jox yàlla xaqam na warañ woon ko ginnaaw beneen bi sëñ Balla Coro moo tawat mu dem seeti ko na ko dolli naa la ñetti juróom-ñaar loolu wax sëñ Balla Coro ci sa dund ñetti juróom-ñaar dolli naa la ko say at bu ko sëñ bi message saa yi kon la ca topp mooy soxna mooy mii la ko defal mosutoon may muuna amutoon ak jot ci menn mbir moom Serigne Touba kon jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulah euh, bi nga xam ne ko xam naa mel na ni bokk yi eh, bégg nañ loolu waaye nag eh, ñu ngi lay santaat di la gërëm ci li nga xam ne indi nga ko waaye nag xam naa ne moom mun sañoon yaa ngi ci yéen yitte waaye eh, doy la gun waa kër sëriñ Xaasim Mbacke ci njiital sëriñ Xaasim Mbacke ñi ngi fii ci jataay bi moom Serigne Abdoul Baaxi Mbacke ak waa kër Soxna a Mbacke ci njiital Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Soxna Daba Fall waaye itam ñi ngi sant bu baax daayira sëti sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke yëpp ci njiital sëriñ Baara Xalil ñoom itam teew nañ fii ci anam mu rafet tubaarkàlla bokk na ci délégation yi muy waa kër Soxna Faati Dia ci njiital sëriñ Xaadim moom sëriñ Basiru Moor ak mbooleem njaboot gi teew nañ fi sëriñ Baara Mbàkke itam teew na fi waa kër sëriñ Abdullahi ci njiital soxna maam xari doomam moom itam ñi koy sant bu baax ci ab taxawaayam bu rafet ci fànn yëpp nag nga xam ne moo sos màggal gii moom itam ñu ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal jàmm ak sutura ak toofeex muy soxna maam xarit Mbakke doomam ndax bu ñu waxee soxna Maymuna tudd si Abdullahi borom dër te ñoom ñaar ñuy tisbaar ak di lépp tubaarkàlla ñu ngi ci sant bu baax a ak sëriñ Seexuna moom sëriñ Mamadul Habib mi jiite daayira sëti sëriñ Abdullahi yëpp nag moom itam teew fi soxna itam teew nañ fi muy soxna Maymuna yëpp waaye nag eh, xam naa ne bu tuddee soxna may mun a mu sëriñ Amdi Mbàkke Daaru Salaam moom it di jàmbar lool tubarkàlla danañ ci dikk léegi ci kanam ak soxna may yi nga xam ne teew nañ fi te ñu ngi alu waxtaan wi ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen ñaanal jàmm ndax soxna may na kun ko tuddee moom wax dëgg yàlla sa wàccuwaay moom eh, moom suñu borom rek moo xam na mu toll kon ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax di santaat nag sëriñ Abo bu baax ci liggéey bi rafet bi bii nga xam ne mi ngi koy amal ak it bëgg ñu gën a xam kan mooy soxna Kabir ndax Kabir jor loolu lu mat a bàyyi xel la sëñ Mamour xam naa danañ ci dikkaat léegi xam kon dañuy daal di jox kàddu gi rek sëñ Mouhamadou Lamine mu am lum indi ñu noy wat tuti ci soxna Maymuna su ko defee ñu wat ci sëriñ Bouchra insha allahu taala kon sëñ Mouhamadou Lamine bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa foofu nga mujjee muy Kabir jooju ci lay tàmbalee ndax dafa am xisa yoo xam ne sama waajur moo ma ko nettali nee na Sëriñ Tuubaa bi soxna may feeñee tam ni yónni sëñ daam Abdourahman jàpp ni cërub góor la nee na moo tax maanaam ñi di ko góoral moom moo ne moom bu ko waxee soxna may da koy góoral kabir lay wax moo waral kabir jooju nee na léegi nag dama tàmbali woon loo xam ni doy na waar ndax dama doon jéem a dugg ci naxu te xamoo ne seex euh, sëñ seex Abdou mu am di mi ngi fi te daa am yu bari yoo xam ne dama ci daa gàggante xam naa waaye dana xaw xaw a amul dëng tuuti ak yéen ñaari taalifkat yi ma jàkkaar léegi nag te way it bii ci bii laa ko def ndax dañ ne nga am bees loo indaale nga xam te ji laa kon jàng xëy na dana am ay kii waaye nag ngeen jéggal ma ko ma ne xam ngeen lu tax soxna may Kubra ñu naa ko Kabir te naxtu day topp man xootam jigéen wala góor ta'nis ja taskir ja mufrad jamhu ak ya ca des maymunatun nahtuha kubra la won du kabir serigne bi mo yoni serigne dam abdou wax ko mu dem xoolal ma gan gi ba xam lum don te wax mu wor serigne dam dema dik dal koy wax ni moom di jigen lay nday serigne bi dal koy wax ni gan gi du gor mu dem dikkaat ba mu don ay yon yu nek ñet mu wax ni kon dana jëf ay jëf yu doon jëfi góor sëriñ bi wax ni bu gan feeñ ci ëttu këram day fekk nag fàggunab cër cër bi nag di bu góor ngir xamle kon soxna may ndaw yomb tee nga ne mooy jigéen ji sëñ bile fàggul cër bu doon cëru góor ma wax la askan wa soog laa wax la doonu jikkoom ak fa mu juddoo fa mu jàngee kaay ma wax la ko moor suñ moorom suñu seex may mi moom laa ko bëggoon wax na <laughs> mooy doomi sëñ Bamba moom maam Mor mu Anta Sali ak soxna jaara ma gën laa dolli ba mu gën a leer wàllu ndeyam it de moom mooy soxna Aminatu moom Kanni moom Aysa moom Mor mu jaamu ma buur moom Ibra moom Awa Ñang mii doomi maam Maharam mii xadd naan ku ko weesu yu woy defoo lu la wóor askan wu sell wi askan wa soxna si feeñ ci yéen Jolof at ma 908 la muy lu ma leer mbokkum ndeyam soxna Khadija nga dolli ca teg Cheikh Abdou Khadir Imam ñeey doomi ndey ci Kabir. nga teg ci sëñ Fallu moom maam soxna Awa Busa doomi ndey soxna May Kubra la mag ci Basiir ngir soxna Awa Busa ak soxna Aminatu ñoo bokk bàyyi sëñ bu soobee ñoom ku nee di lingéer sëñ Abdourahman mi jàngal ahlu Mbàkke gile moom moo ko jàngal mu mokkal boppu bind mu leer at maa di 900 yu teg 22 ca dëkk bu ñuy wax nag patar la ko jébbal sëñ bi maa ca kajoor sëriñ bi bég na keroog ngir am na tikki xolam yooyu soxna may moo ko tekki tikki yooyu bu wóor seex sidi baaba la doomam wattu bind itam ab kaamilam wan ko sëñ tuubaa jigéen la du góor te sëñ bi nag amuloon doomam jigéen ju wattu mu bëgg lool daal di koy ñaan yàlla mi sunu boor sunu boor xam-xam ba sëñ Mbàkke Kanni mii di jaayam itam la roote nag moom ba feesal ndaaye yëpp di fuur lu fiq atte mu xam bay mufti sax ju xam haroor bayaan nahu tasrif teg ca taalifi jóor taalif de mawhiba lay doon yàlla moo ko jafal ba muy jëfal bàyyeem ak soppeem lu taaru ni or ki may sëriñ sàmba jaaraak sëñ mbay ak sunu maam moor koy re may sëñ musaa may soxna may ci lu wóor man mët lamin moo ma may maa donn ñooña ci way maa donn saa turandoo it lii de mooy jëfi buur sëriñ Moussa nee dadaa woy nag du dama araf mais baara mii baara moo koy donn léegi sama muur mii baara baawal bawal bañ man di méngati way mais baara daa jooru ay jóor fee fa ahlu kajoor moom soxna may kubra moom soxna may ku bëggoon lool sëñ Moussa Ka la woon danaa la woon firnde joojee bis la woon bu dibéer ciw tam xarit yow ma xaasa war a nee ñu sëriñ Moussa Ka ñëw fa te boobee soxna saa nga ca biir ay fan yaram waa suutaantee tax ba kenn gisu ko sëriñ Moussa ba mu yëgloo rek la soxna sa buur ni tëll génn ñaqam way toqi toqi fu ne nee fu mu gisee waaye sëñ Touba du yëg sax a góor pelek kero mo tangal attaaya ñu naan ne seigne Moussa mi ko seesee tax mu wër ci lu wóor seigne Moussa na jox jaxalante fa mu ay bayit siyaare si la yow ma xaasora mu ne ko indale ta nga indaale dawa mom nak bahru ye bokul mo indi mo ne siyaare yow ma xaasora la ko wax andale na man dawa a tontu li lu xoor mom soxna may lee waral na gu ne te xuppena dor ay yar ñi ñàkk yarit jàngal ñi ñàkk yarit bañ xam la war nag ci seen diine ba duñ jëfu toor sëriñ bi nag ba mu jegee sëriñ bi nag ba mu jàngee nag ba war nu lefam li ñëw mu wax ko ne xam nag xam le mooy la ca wóor mu daal di jël laxasaayam jàngale na fu ne fu sëñ bu nekk bu doonee jant moom mu di weer sëriñ bi daal ni ko kaay dem nag ca feefa sa mag muy soxna fët ja yaram ak taalu bi dafa leer ma wax la tey jii lenn yu teel bi sunu maam maam soxna Fët Ja lu doy waar jam na daa a diir soxna Fët Ja lii faaw ñu leer ko ndax sëriñ Samba Mitu Diop mooy sama waajur dafa nett ni soxna Fët Ja day sëriñ Tuubaa da ko gërëm bis gërëm boo xam ne ndax nee na daa am loo xam ne dama ko daa xamal nit ñi xamaluma ko ba noppi mu xam ko sëriñ bi dafa ne ko indil ma këllu bi yër bi nekk ci biir néeg bi ba noppi sëniñ mag bi toog ci buntu néeg bi soxna Fatou di bàgg rek di jaabante Fatou jël li ma la waxoon da ko déggu la mu ne ah kay mbàkke di jaabante di jaabante ba yàgg sëñ bi daal xool ndeke këll baa ngi ci gannaawam te muy ci bunt bi sëñ bi ànd ba mu dugg jël këll bi génn mu ne ko xàkk saa Fatou Dieng ab yar ak ndigal fu ñu dajee jëfee di teggin soo jëfee teggin da am yar ba da am teggin yi nga xam daa bàyyi bi sëñ bi ànd mu soog a dugg ci biir waaye day bàgg ci kanam rek ñu mu dem te xam ne mi ci gannaawam dugg jéggi mu ne nag lam xam loolu te xamalu ko ci la ko moom leen di ner lii ma wax la tey jii lenn yi teelu beeg sunu maam maam soxna Fët ja lu doy waar jam na daa mën a diir sëriñ bi bis nag da koo woo moom mu ñëw mu ne ko dugal ci néeg bi indil ma këll këll bu yiir sëriñ bi sukk ci buntum néeg ba fa mu war a jaar moom soxna Fët ja ma ngay jaabante bàgg na diir ba yàgg sëñ bi ci boppam xool ko daal ni ko daa ne saa gannaaw daal di jóg ba mu jàll jël ko ci biir sëriñ bi daal ni ko hakasa di nii dani la teggi ndigal fuñ dajee teggi ne jël ko te ngoor moom soxna fat ja yaram ba yor murit ga mu yor la taw ci soxna mayum kubra bu fépp ma lóor ma wax la lii soxna may roy soxna fàtt jamagam ci xeeti am kilifaak toppi ndigal ba du réer addi jëm njëkk am moom soxna fat ja da ko mu dem marché daal ciy jënd benn super demal nga jox ko Serigne Touba ni hadiya la te bul ko gaaral te bul wax lenn la mu wax bi moo ko ubbil ndab loola def ca ubaat luy faj sa aajo tey ak fee sotti naa ko ci biir. photom bi ñuy gis mu doon benn photom bi ñu xam daa wax ni waaja damay tàggoo ba am ci lu leer mu yónni waaja mu dem laaj soxna far ja ndigal te it na firndeel ndigal lii it ci mbindu ndajoor magi Serigne Bamba yim yar nee na ñooy sunu baay ci sunu murit gii ku leen war maal ëllëg danga reer lee tax mu doon tukki Kawlax jaar fa nemmiku sëñ mët jëw paxa ba mu ko nee lal baa ngi toog ci mu goor ca suuf sa daa banki wóomam moom basan gade sax nu ngi wëccaa toog ku wuuteeg soxna sii dafa réer nee mag ñi sëñ Bamba yar ñooy niir yi ñoo nga ca kaw ku bëgg ndox nag ci aw niir nag da ngay renouir mu ne magum Sëñ Tuubaa mom yar wajur la mu digg nga toog ci kaw mu toog suuf duma ko def ndax aw nir fekke da nga bëgg ci taxam da ngoy ronu kon na la def motax it amna fo xani dana ci wax dara ndax dama ko ci euh, bagi Sëriñ Tuubaa yi bambayaron, mag ñi Sëriñ Bamba yoron mag ñi Sëriñ Bamba yaron ak soxna yi Bamba yoron ak téré yi mag ñi ku leen ma li tax sëñ bi la fonkoon soxna may ci la ñu dikk lii tax ba sëñ bi la fonkoon soxna may mën a tul Kubra jegee loon ko boppam kër ga sax na fa diir sëriñ bi daa wax ñu wut ab néeg ci ëttu këram ngir soxna may te balaa ngoon ngoon na tàbbi ci biir mu woo sëriñ kala sëy ak sayxu Aliyu sëy sëñ Mbàkke Juuf ñett ñii ñoo jëndi woon fi ndi fer ak ponto daaj fa baraag boobee te ngoon ko jotul kii jagle gém am ci sëñ Tuubaa jegeem gi di muur muur la moo dàq muuraage ba fii mu nekk ci suñ réew mii gisee fa gu fi jigéen ju bopp ku moom nag ñu móol ko mu leer kamil ñu móol mu leer naññi ñu bopp ko ñu ne jigéen ko bind gisee fa gu ci réew mi jigéen ji mokkal de lan fiy dégg waaye bind ñu ko neew na fi lii may wax dafay lu ma leer ku wax ne am na ku bindit taalifu li mu taalif nag ci ay téere séenul soxna may mu kabir sëñ Bamba kon la mu daam ni ciir ba bi mu fàggul gan gi nag buy jigéen it foog mu def jëfi góor loolu nag maa koy leeral man mi te kenn du ci man dara man mët la min maay gis yi wal wax ji sëñ bi waxoon ci wii bayit sëñ bi moo may sol ma lekk ba suur jigéen ju man cere man ceeb xam addis man a woy man alxuraan bindi kaamil lii doob ci rugóor ah, mu wow ma wax la soxna si génn ko addina nga ba tey nga xam ni mooy saydatu niswaani ci man li ma leer ajjuma mi sa sayidul ayaami weer wa di sul di fukki fan ak benn nit ci aw diggi koor hijree mille nag yu teg 900 yu dolli tegaat 66 arafi allah la dem gane boor boot nag njabootam jali mbootam mbóotam njaboot gi demul ba leen yoxey neen ndelim yor jox na leen ci lu wóor ku xam sëriñ Moustapha may xam xam ni am na ci may yi soxna may amee woon waa Daaru lii du lu leer sëñ Seex May it moo sëriñ Moor May rakkam mayu nañ ci may yi soxna si yor Tuubaa gi ñëpp la wër sëñ Amdi May sëñ Abo May may yi soxna si am am nañ ci Daaru Salaam ay leer yu faw xana weer te soxna toora de lim tuur fii ci yiw soog a dem fee fekki yaayam di tuutul yàlla na yokk sa leer te yàlla na yàlla yakkal moom soxna yàkk la mii wér gudd fan ba mu set leen fan ba romb téeméer sëriñ aboo yàlla na yéene soxna si ki ki magam matee ci moom te am téeméer yu teg fukki diir yu yàgg a yàgg yu ànd ak wér te wér la itam njaboot gi bootu mu boot leen jàmm sax fi te yàlla na yàlla mayaat moom soxna may fa mu ne ay kër ca àjjana naa yëm fii damay bëgg a reer te yàlla may ahmadul muxtaari yiw mooy tamayaat it bàyyi mooy muuna fii laay yam dama bañ a réer allahuma salli ala sayyidina muhammad eh, am naa ne eh, neexal na jotaay bi ndax li ñu doon lépp da mel ni da ko na ko ba ci photo bi nga xam ne benn photo la eh, te mu ne ko bu fekkente ni mën ngaa dem ba ci soxna Faty Dia nga nga nga wax ko ko te boo ko waxee buy nangu itam na bind na yaxal loxo ndeyjoor xam nga loolu itam nekk na lu yéeme waaye li ma ci jaaxal mooy mooy mooy mooy xas bi nga xasaale taalifkat yi rek loolu rek moomu ci xaw a métti ci biir yëf yi eh, ndax lemin du yow rek yaay woy gaa yu weex ñi ngi fi te maanaa woy doon gone te jàng-jàng mu wóor kon sedd leen ngir ki ñuy waxtaane xam na lu ne teewul mu sedd jigéen ak góor bu cere ji lóor kon ñi ngi santat bu baax te di la gërëm xamna ne damay dari eh, ñëwaat ci sëriñ Bosra ndax itam wax deug yalla bu doon def taalixaat dina dina am solo ndax amna bakkar feggu lu sëñ maam Mor war ñëwaat tuuti ci li nga xam moy digënté mak mag ñi ndax soxna May da da mata xam xam nga ay ay woyam rek buñ ci duggon tay ci lim woy sëriñ Touba ak wolu gi mu wóolu sëriñ Touba loolu la kenn musta gis ndax ak wolu dafa yombut dañuy misal ne wolu nit. mooy sëriñ bi dalaa woo ma nga tuubaa yow yaa ngi Ndakaaru mu ne la ñëwal léegi fanaan si te bi mu la koy wax 9h ci guddi jot na nga jóg taal sa poto bi nga taalee gis nga ne làmb bi xonq na mu wóor ne làmb son bi moom li muy wane ne mooy essence bi ma umu ko nga daal di ñëw ba ci station bi nga taxaw gëm goo gëm sëñ Tuubaa ak wóolu ko ne dana faaw ma dem nga ñëw ne ko duyal ma plein waa ji taxaw tàmbalee duy benn waaye ñëw droite fële taxaw am sëñ Gànna wala sëñ Mamour wala sëñ Bosra ne la ah waa sa yow foo jëm nii ne ko Touba laa jëm mu ne sëñ bi defal ko plein de wëlbatiku moom ñëw joxaat la ay bon yëkkati xaalis teg ca loolu bu fekkente ni la la war dëgg-dëgg mooy daanu yuuxu xam ne sëñ tuwaa mi nga wóolu moo rek moo la ma defal lii waaye lu fa nga jaar ba wóolu ko nag looloo ma sa lijjanti te tay weñ ak doja dal saam xel te teel ñege ma waaw te teel ñege ma moom way wayam dafa neex te riis sëñ sëñ bu sora <laughs> jërë ngeen jëf sunu xol sedd na guy ci li nu fi dégg ci soxna su tedd sii muy sayyidatuna Maymunatul Kubra bintu Xaadimu rasul sallallahu alayhi wasallam muy jëmm joo xam ne jii nii rek la mën a mel ndax yaaram yi dañoo wax ne al wirasatu wal biatu ayuhuma asaru taasiran al insan doomu aadama ay origine am ak milieu bi mu évoluer lu ci nekk day influer ci moom day jeexital ci moom ku xam ñu ko jur xam ñi ko yar xam fi mu aw xam ni nii rek lay mën a mel jigéen la waaye sun borom musta gannaawal jigéen lu yàlla ni jigéen mën na ko rek doomu sëñ Tuubaa yi prouvé nañ ko waaye sëñ bi dafa wax ni fal taalami anna jihaada niswati fi taati illaahi fi taati zawjaati dunil miliyati bu fekkonte ni jigéen mën naa tedd mbaa mu màgg ba ëpp dem kër kon doomi sa yonti bi sallallahu alayhi wasallam eppon ko waaye ñom ñep muy doomi yonti bi sallallahu alayhi wasallam ku ci nek jaar nga ci ay loxo kala wara yor yor la serigne touba it loolu la jàngale ci doomam yi kenn ku ci nek bi nga xamé li góor di xam lépp melni góor gu bax wara man lépp ndax li serigne tou sun borom wax ni faman ya'mal min as salihati min dhakarin aw unsa wa hum muminun fa la nuxiyannahum xayaatan wala najziyannahum ajrahum bi asri ma kanu ya'malun teewul kenn ku ci serigne touba da la bo rek kam wara àndal waye soxna may naka jek alxuraan rek lako seigne touba massa jaye a rek lako seigne touba massa jaye damay faral wax di doomi seigne touba yu jigen yi ab chef de canton musulena leen jël borom wërsëg musulena leen jël ab traitant mosu leen a jël ku sëñ tubaa ne jërëjëf rek lañ leen massa jox mom mi kañ ko jëkk bolel fa darul muxti ño bokku lépp muy doomi borom daru seigne mohammedul Habib nga xam ni di at yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am ci àdduna yi mu dund ci àdduna bindal na ko sëñ tubaa ci kaamil juróom benn fukki kaamil ak ñett moom la ko sëñ tubaa jox mu am fa sëñ mu Moustapha ma nga xam ni kenn ku ne xam ne mu toll woon fa daaru sëtu borom daaru la woon waaye war may doomi doo borom daaru la ko bokkam yépp joxoon doy ñëpp feeñe fi kanamu sëñ tubaa toog na fi ba mag ci sëti sëñ tubaa yi ñëpp soxla ñaanam boo demee daaru tey jii foo xool gis turu soxna may wi ca taalibe gu rafet gam àndoon ak mbokkam moomee ndax doomi sëriñ tubaa ju jigéen ju ne kuñ la mas a jox bu dee sa boo de bu la warmaalee ngir sëñ tubaa it xamoon nga ni sëñ tubaa moo ñaanoon ni yàlla na sama doom yu jigéen yi topp seen diggali borom kër te yàlla tax ñoo daan tàngal seen kilifa yi attaaya di leen toggal buru buru bañ daan dunde di leen mokk ngir yàlla ba tax na foo xool daaru muxti rek da nga gis turu soxna may ca boulangerie ak ca lépp lu mën a doon ba ko fa yàlla jëlee ginnaaw sëñ Mouhamadul Habib te yàlla melo ko nii mu mel ndax yàlla buy tëral jigéen taar la koy jox buy tëral góor xam-xam bu am njariñ la koy jox kaanat zaata xusnin bu jamaalin moo dàqoon ñëpp aadam ay dafa wolof woon li taar bi li muy rafet rafet nga xam ne yàllaa ko def mu mel nii mu mel ni la dëddoo woon adduna waaye dafa selloon dafa senkoon dafa setoon daawul takk wurus nag takkaayi per la daan sar ay njaray per bari xorom lool sàmm lool sont lool bëgg lu baax lool sawar lool ba mu fa jógee ñu jox ko magam sëriñ Mor Soxna taaw maam Mor Jaara kooko yàggul àdduna waaye ku ne xam na doomam yu baax yii ju fa am te di baax ba dem li muy baax baax bàyyi fi ñu baax da koo gën sëñ Seex May mi ku ne xamoon na ko doomi sëñ Tuubaa yi sax dañ koo joxoon war ma ngir na mu meloon mu sa génn dëkk bii ku ko mas a xam fii nga ko xam waaye ku mas a gis rek xam nga ni gis nga sëñ Touba sëñ Mor May mee nekkoon fee wetu kër sëñ Chouaïbou nga xam ne soxna si doomam mi sax daf leen a mottalee wëllëre nga xool sëriñ Cheikh sëñ Mor May nam meloon doomi sëñ Touba yi dañ koo yéemoon nijaay mi dañ koo bëggoon yéem ko te loolu am naa ci lu ba leer nañ sama xarit la woon dafa maa bëggoon ànd naag rakkam yu bari seet si ma ca kaw lax mu sëñ Mor yàlla def jëmm la joo xam ne jii فانه هو لم ينه قط عيبه لم يره li xaw fi laahi shaybu بون nit bon bon boo ko nee sëñ Mor May bu la bu ko xamee ak a baax rek la cay teg moo amoon unanimité nii nga xamni amul tricherie koku ku ko xam xam nga ni ku bax fess del jamono wayef lol tabe lol bëgg lu baax lool fonk kilifa lool bari xam-xam lool amuk talibe lool ku ne itam gis na ba mu fa jógee dem ci Cheikh Mouhamadul mamoud moo tax dama ne sëñ Modou sëñ soxna May mooy prototype mooy Touba ci loxoy Cheikh Mouhamadul Mamoun la génne adduna Cheikh Mouhamadul Mamoun ma nga xam ni sëriñ Fallou Mbakke mu baax bi Seydina rek la ko daan wooyee Seydina daan wooyee sëñ Modou Mamoun ci loxoom la mujj ndax nee na moom la sëñ Touba wax ne amul bàkkaar te nit ki ku amul bàkkaar rek a dib sang moo tax sëñ Fallou Cheikh Mouhamadul Mamoun Seydina rek la ko daan wax mu jëm joo xam ne sëriñ Touba ko yaral boppam ka leeri xaalis yi sëñ tubaa daan suul ci njaarim ku dul sëñ Mourou Mamoun xamul fañ ko denc daana wax ne ci ni xaalis yi sëñ tubaa suul man rek maa xam fi fi ñu ko denc tax man la ko daa gas lool daana toggal sëriñ bi ci loxoom daana ko ëwal ay dàll ànd ak sëñ tubaa diir bu diir bu yàgg musta jaar ci néew doole di daawub sëriñ gaawaan soxna si ci loxoom la mujj am fa njabootam gu tedd gii mu fi am muy sëñ am di sëñ abdoo mi sëñ abdoo mi ak seen ñaari jigéen yi muy soxna amin aminatu muy soxna tooro ak soxna maam antam mi njox soxna yekk la yàlla leen fi yàlla yàggal soxna si yàggul adduna mook sëñ Moodu Mustafaa Mbakke ñoo tolloo ak dund juróom fukki ak juróom-ñett la fi am wala juróom-ñaar waaye walaw ista alfan summa alfayni ba'dahu fala budda an tasira yowman ilal xabri adduna moom boo fi amoon 1000 ans amaat fi 2000 ans muy 3000 ans yi dana sa xëy di guddi na mbaa naaj kon dund gu amul njariñ dund dul fàtte rek am njariñ juróom fukki ak juróom-ñett la fi am mook sëñ Moodu Mustafaa Mbakke ñoo tolloo ak dund guddik ajjuma la nelaw alxemes ca hôpitalu Mbàkke bee Cheikh Mouhamadul Bachir magam jani nañ xaar ba suba ci teewaayu bokkam ñëpp ñu taxawu ko mook sëñ Bachir magam ci ko taxaw ñoo bokk am at Touba kenn wallewu ko du góor du jigéen ñëpp gunge ko ñëpp seere ko ñu jébbal ko bàyyam fii keroog ba mu jàkkaarloog Serigne Touba ak magam ja ak bokkam yu baax yi xolam sedd na guy yàlla noonu yàlla taas ci barkeem lu mel nii dafa mat di waxtaanee ndax fii mu nekk nii jamono bi danoo am ay crise de référence réew mi kenn xamatul noo te itam réew mi toll na foo xam ni bu nu noppee xam la nu am noppee xam ñanu amoon rek daal di nuróog geneen Sénégal gis nga léegi dafa mel ni sunu réew dafa mel ni trafic en miniature kenn xamatul koo war a nuru kenn xamatul koo war a roy kon nag ouverture am na solo lool waaye enracinement ku gën nit ki bala moo tàllal loxo ab jaambur day fexe ba xam mooy kan xam boppam mooy kan soxna may nii la meloon yàlla noonu yàlla dole taas ci barkam yàlla yàggal fi jabootam gi te bis bi itam nu yàgg koo fekk yàgg koo taxaw sun xol sedd na guy wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu barakallah jërëjëf sëriñ Boussala bég nañ lool tubaarkàlla ci waxtaan wi xam naa ne waxtu waa ngi catee waaye lu mën a xew bég nañ lool te ñi fi tawit bég nañ ndax xame nañ ci soxna may mun a tey loo xam ne xame ko ci woon wala am na ñoo xam ne buñ ne soxna may sax dañu naan soxna may saxir lañ leen gën a xam te tey loolu dafa mat mat a bàyyi xel nga xam ne soxna May moom yi ñu xam wala mi ñu xam ci jamono yi moom lañ tuddee soxna May mii tey te yaakaar naa ne am doom tudde ko sa doom loolu ngërëm mënu ko weesu ak xol bu sedd waaye yëmu ca ak ñeneen ci ñi nga xam ne njabootu Sëriñ Tuubaa gi ñu ko tudde doom tey soxna May tubaarkàlla bari na lool sëñ Cheikh Sidi bi ñu àggee dégg naa bi ñu ko waxee daf na leen samab taw moom laa ko tuddee mi nga xam ne mooy xalifa général kullu murit yàlla na loolu tànn ku wér naa kon pas-pas Serigne Mor Euh, sëñ moro wàllu pas-pas bi moo amoon ci taalibe nga xam ne daana jëf jëf joo xamante ni lam doon da koo tegoon fële wëlbati ko doon ab taalibe jëf na ko ci digganteem ak njabootu sëñ Tuubaa gi ci ay melokaan yu bari xam naa lool la ñuy bëgg ñu barkeelu ci insha allahu taala jërëjëf El Hadj Afe jërëjëf itam sëñ Boussara jërëjëf sëñ Gana Messere jërëjëf sëñ am sëñ Lamine sëñ Cheikh naa bi fi bàyyi ko léegi kàddu yi am solo yi wàllu pas-pas suñu affaire yemu ci kenn mu soxna si am lu sin seex na junj soxna Faty mi doon sëriñam Sëriñ Tuubaa boole kook moom moo fexe ba ne Sëriñ Tuubaa defe yonte mu def moom noona mooy saxal juróom benn weer yu nekk mu yóbbul ko ay hadiya eh, te loolu lépp na da ci juróom liggéey Sëriñ Tuubaa ndax sëñ moo daan nettali ne soxna may woon nee na ko Sëriñ Tuubaa de mas na ma ne suma manon def sama jëm ñaari jëm jëna ji liggéey jenn ja ba am dina ko def ndax bo xam ngeen xam ci njariñ li nek ci liggéey Touba taxna mus ca tegg tànkam ci ci ci sin muy liggéey Sëñ Touba ci e, e. loolu it ay firnde yu bare bare la ci lu mel xé sa photo bobu ñu waxon ci la bok waye masna tok ci soxna Fadja soxna Fadja am ko muy jambat ku ñu wax Magga Sek dëkk ci Kawlax di jàmman ne màgg Seck de bu ma ko mënoon a gis ba mu jàng ndax Maguette Seck dafa dafa mënoon jàng te neex baat soxna Fat Janaan ay bu ma ko mënoon gis ba mu jàngalaat mais dara baax soxna May bu fi jógee jaaribu këram dafa def jubale Kawlax dem di wër Maguette ba gis ko ne nag soxna Fat Jaale eh, soxla la ca bëgg yóbbu mu lay ay lay maanaa lijjanti këram ak yooyu ci ngoon nga mu lijjanti ko mu xëyaat mu ne ko daal ñaara mën a am soxna Fat Jawoon du ma dem ci mu mukk loolu dama ne ko màgg Seck ngi nii an an ànduñu dem mbaay mbaay ni ñu def ginaar yóbbu ngaay ma def la noonu yóbbu waaye faaw du ma la fa bàyyi te yóbbu ma ci soxna ja waaw noonu la àndee mu yóbbu ci soxna Fatou ja day woon pas-pas kon bu dëgër bu ma amon ci ci ci ci ci ci ci ci sëriñ bi noonu la demit mas naa namai ak soxna may fekk soxna may dafaa dem Darou Sam seera ji ko moom soxna Fatou ja mu ne ko ñëwal gunge ma ma doxantu bu doxantu ba jege ray bi saxaar gi jóge toba bi mi korne ngir jaar salam sona fa Faty sumi daal yi ne soxna may sumi sa dàll yi ñu magga saxaar ndax lim mu ci seigne Tuubaa soxna may neen ci la déggee li seigne Tuubaa yu xam ne kulli kullaka wax ñu saa su nekk sama lepp day magal sa lepp nee ci lo sona fa Jaara def ci ci digg ma saxaar gi neen lol ci la ci la déggee bay woowu saxaar gi jóge Tuubaa musumi dal ne may sumi say dal ñu gi ndax lim ci seigne kon yu bajjulu kulli kullaka jooju Sëñ seen wax son may neen ci laa ci la ci laa ko déggee euh, noonu loolu jëflanteeg nag njaboot Sëñ Tuubaa yëpp seen Seexu naa bu soo wax na ci lu baree bari noonu mu jëflanteeg ñoom noonu loolu jëfle di itam jigéen ñi ci seen bopp soxna Jóob Mbàkke ak soxna xari xadi rakkam ñoom da du ñu woon ñaari jëm waaye jenn jëm lañu woon <coughs> te bu ñu ci marché yi mu leen defal loolu dana ci leer ku ci nekk nam koy tagge da nga ci xamé fam ko tek soxna job da ca wax ne ma ñew fi def masiyab ko koo ki gisu mab kemam ci rak yi ak mag yeeg ñi di masam ta joy fi sa joy yu xol yi def ko wala fal ta wax ca la xam ci mom cey akadib yaram boko xamul modi bintu shaykhina wa khalilina wa sayyidina tay sibtu mam mahram batay bu ngeen ko xamul moom la sëriñ bi joxoon Cheikh Abdourahman mi baaxoo xamle ngir baayam xamal na mboolem ñi baayam jur xamal na itam mbooloo ci ay taalibeem bañ xam ngir ak baaxam xas xasida gudd la waaye loolu doy na ci ab tegtal ci diggam ak soxna Jóob bu dee itam soxna Xadi yoo xam ne bismillaahi ma def tey ay bayit ci mbirum bintu xadimi rasuulillaahi moo waare te wàññi rongoñ yi feesal xol bi léem a gëlëm te jéem a farlu te tuubal yàlla kiy bari ngir doomi lislaam du tiisoo mbir mu yàlla dogal def dàqal nu seytaane yaag xabibakal jaari cay doomi bàmba ca tax siisam ya nekk ci moom xadijatun doomi tawfiix bis ba lay leer mooy tax xasida gu gudd la doon ay finde ci ne seen diggante ni mu lañ jàppe woon nga xam ne ku ne jëmmi Sëriñ Tuubaa rek lay xool ci yow noonu la itam wëllante soxna su Mbàkke maam mo jaar nga xam ñoo bokkoon kër Modou Mamoun waaye soo gisee masiye ya, ba mu ko defal da nga yéemu ci yàlla mooy fi mu ko teg te biir wax ja dem dem na ba bay wax ne wallahi man mi moom gën ci masiye bi mu ko defal xam nga googu torox la ak wàcce boppam ak ci koo xam ne ñoo bokkoon kër gu ju la yàlla soxna Maria mu Mbàkke moom Cheikh Moustapha noonu la mooy itam noonu la moom jenn jëm la ñu woon noonu la ñu jaxasoo nekk benn soxna musli ñom daamel mel dañoo wàcce ay doom soxna musi dafa jàppee doomi soxna may ñuy doomi boppam soxna may jàppee doomi musi doomi soxna musi ñuy ñuy doomi boppam ñu doon jëflante jëflante bu rafet euh, mas naa nekk ndaam moom soxna musli woo boobu soxna soxna maam Anta mi ngi ci moom ndax nee naa la moo yoroon doomi soxna may yi daal di woo soxna maam Anta yëkkati sir bu rabal Eh, yi xam yi tudd cadre mu xam moo ko tudd woon di ko ràbb daa ko jaay daa koy yëkkati am leen raba ne ko doom bi Sëñ Tuubaa ne ko kaay ma yónni soxna ma ndax doom bi Sëñ toog diir bu toll nii te demoo fa siyaare ko joxe ko hadiya loolu wala daa wóorut yëkkati seru rabal jox ko ne ko yutali ma ko ne ko àndal ak sooda amar ngeen yutali ma ko soxna may laataa soxna mari eh, mant di génn kër ga ndawal soxna toora agsi jóge ci soxna may ne ne soxna bu si kat soxna ma yu yoon jox ma rabal bi naa la ko yut si ndax nee na ko doom yi Sëriñ Tuubaa kat toog diir bu toll nii te seer yi ko jox ko addi daa warut dégg nga seen wax ni maase de kee daa wóorut kii ne daa warut waaye la des lépp wax ji ñoo bokk kon day wan ne kon ñoom benn lañu woon ak seen jaxasoo googu loolu da ca leer soxna Ami Seex moytu noonu la deme soxna Moomina Sëriñ Seexuna indi na ci léegi firnde diggam ak moom soxna May di turandoom it cër bi leen Sëñ Tuubaa boole eh, da cay feeñ ci seen diggante eh, bi mu nekk Daaru Salaam ndax Daaru Salaam la ko daan fekk ñu ànd dem ci soxna Faatija waaye bu dem dañu yóbbaale soxna benn sooda karaman soxna benn sooda soxna may moo ko jàngal barsan ba mokkal ko mu ko daa jàng eh, mu attana musa, musa Karaman jooju Karaman jooju moo tax moom la ko dàkkantale ndax li mu doon jàng barsan saa bu ñu dem ni ko yóbbaale nag ñu fanaan fa mu jang mu fanane jang barsan nga kan xam sa mu san dem ci soxna may mom lay andal soxna fadja soxna bintu dende yitam mom señ mo soxna mom mom la gënoon jaxasol mom dafa da wax ne mooy ab euh ba ci wéré digi sax mom la wolon mu ñëw féete moom moo nekkoon mom ci hôpital ba diko taxaw diiru fa nekk ba ni mu ba wàcc liggéey ci ci kawam la wàcc liggéey ndax neen lam fa nekk lepp buy sax ci kawam lay lay gegeno ne daan dem ba tankam bi tàng ba ba ba ba tok ndax ndax ndax yàggu tëdd ko duñu waaye lepp day wane sen kon sen sen sen sen diggante ni melon yoon ci loxon la wàcc euh eh, seigne Moussa kayit euh def naa sëñ ñu nako legi mom sen seen eh, ku deglu way da nga ko xam ni daan joxlante way nga xam ko da nga jox way jox sa morom mu tont la ñu da sekk lu bari daana woolu suñu Moussa Ka mu di ko jàngal di yëkkati ci kaw di jàng di di di di xas di jàng xas di ko soxna may loolu ñu seqoon moo tax keroog bi ñu ko tàggee soxna may daa wax ndaw la ne li desoon ci man di di day far nga ko kollati moo tax soxna may réewu ko lu bari naa ko dafa ne ci fan yooyu la daa dem moytum euh, sëñ Mbàkke Jóob Masamba moom Seex Masamba Jóob Sàmb moo daa wax ne soxna may moom képp laa masa jëfandikoo alal ju bàyyi ko ci moom seen masamba ju sem semba leen da wax na doomi alal doomi Sëñ Tuubaa bu ko jëfandikoo ndax la ca nekk ak ci lum la mën a mën a xañuy meloon waaw booba dafa am aw xew soxna mbay di ko taxaw am lu mu ci yëkkati jox ko bi nga ko defanda ko xaddi mu ne ko tee nga koo jël rek ndax caabi la di soo ko jëlee di sa mbir yëpp ci la ubbi ko neen loola tax mu jël ko ne kon moom la masa te noonu la doon taxawoo doomi Sëñ Tuubaa yëpp nag doomi Sëñ Tuubaa yëpp kenn ku nekk moo moo moo taxaw ci sa taxaw la ba nga taxaw ba muy sambal sin sin sin bu Khadre dara di ko wut sàkkal daara loolu sëñ Abdou Khadre ma jangam jàngam jàng noppeekut taxaw ci fan yeb non la taxaw Cheikh Murtada domi seigne touba yeb non len don taxaw eh, kon da man nga ne eh, ñepp ñu bax ñepp soxna may dafa jaxaso won ak ñom def leen nekk doon ñom ben di len ak ñom kenn ko nek itam lo ma sa xew la da ngay japp man man day ne da ko day da ko jël def ko fi boppam cheikh abdullahi borom derbi daana ko bàyyee këram ay weer tukki nga xam ne ba ci xewu am gannaawam sax du ko ci nekk lépp da koy taxaw Cheikh Moustapha daana ko woo këram téye ko fa ay weer noonu sëñ Blaat euh, waxoon ne maanaam soxna Mbay de xanaa ku ku ko xam ku nekk jaxasoo moom xam njeex gaa xam ngay rëccu waaye dootu ko mën a muñ loolu doomi Sëñ Tuubaa yëpp noonu leen doon noonu leen doon defee ak moom euh, sëñ Gànna wax na ko defe man Cerno jox na ko euh, xaddi ab néeg boo xam ne da ko néeg baa ci nekk lépp talon maga soso ca xissa ba mu don netti ci njaariñ mi mu ko lalé les yi japp na fi lay jaar tamaan ceen yego ba jaari fenen ba ko yegge da ca yekati sax mana dafa dafa yekati am euh jox ko ko ngir tuube ko soxna bi ba fa démé diko sant nak bu ndugé ci néeg bi la bi mi dem la ne beeg lu ci nekk jox nako ko hadiya waye mu jël ci ben kopp xolal rek ne ko ne ko li def nako hadiya loolu mom ben lañ won serigne Xaasim mbacke non la jaxaso won ak mom ñu nek ben ta amna beuy yu ñu ca def yo xamne euh moy tegtale digganteem ak serigne Afiya serigne serigne Xaasim amna na ko da ja wax ne no ngi nu yok sangé bi gis fu ko neex mu toj ko def koy tolam sanc ko dal koy tuddé daru rahman yalna na fi sax ba mat yalna na fi sax mat fi ba tol ni saman barke Serigne Touba la ñuy dagaane barke Serigne Afek Serigne gawani. ba sayxi khasim Mbàkke tol ni bayam te melnu ñom amina mbokki gayam dañu defal ko lamu bëgg am ko te ndolli ko fatxu lu xew mu xam ko wal defna ñaan go nangul mom <laughs> dañu defal ko lu bëgg am ko te ndolli ko fatxu lu xew mu xam ko jahi bàyyi tahirin wa qasimi yalna Serigne khas Mbàkke sax bil akrami wala bil karami amina amina nde amina yow Modou mbeng war nga na amina Modou mbeng momi bi mi siara ji euh euh nu si eh, sëñ seigne seigne jaw faxa la andal ndax dafa ñew dafa ñew ngin ginaaw and ak eh, Modou mbeng waxan talib soxna seigne seigne xaar sa ànd ak mom dem ci siara si Modou Fatick seigne modou faxa ak seigne mu jóg toog ci lal bi mu bëggoon tok mu gantu ne du ci tok buku tok ci sof nestooti eh, sëñ Madiaw Fax génn ngir da woo jigéen ñi ngir ñëw nuyu si ko ba mu génne mu ne mu dem ngi nga defe nga ne moos sëñ Madiaw mi ni mu jaxasoo sëñ Tuubaa xalaat naa toog ci kaw lalam bi nga xam ne kon gis nga ni loolu lépp sëñ Tuubaa lay xool nga xam ne ni mu jaxasoo sëñ Tuubaa ak cër bu mu ci am rek tax na defu ko am nawle waaye nanguwut toog ci kaw lalam loolu sëñ sëñ Lamin doon junj ci xiin bi ne aw xiin boo ci bëggee boo ko ci bëggee jar ñu faaw da koy da koy rono loolu day tegtal rek Eh, ab taxwayam mu don ku gem Serigne Touba lol te xam ko te am ci tawfiqit lol mo taxoon ñim mak sax ndaleen daa warmal Serigne Abdul khadir mi xam nga lim ko magge top sax ci mom waye suma masaan ñew ci mom bu asibu day ay dalam nga la koy mag mag teew da ko war maa ngir jëm Serigne Touba nga xam ne kon doomi Sëriñ Tuubaa yëpp ñam ca mag ak xàmmee wala nag ña ko ca mag mooy nem cër ba muy jox mag ña moom lay jox cër ba nga xam cër boobu lay jox ñi nga xam ne ñoo ko féet ak ndaw loolu lépp ba tey ngir jox Sëriñ Tuubaa eh, war ma ak maggal ko ak pas-pas bu dëgër bu na ci moom eh, mooy li ko war waraloon eh, bokk na ci am mën a ak mën a jàngale itam dañoo wax ne Sëriñ Mbàkke Sàmb baye serigne Moustapha Sambu, defena naa ku ko xamone mo da yo téré da da rango ràngoo martu yi eh, te ay téré yu bari wa ci kër gil nekkon wajuram moy moy serigne sam momu may dem daru moti mom la ko sëriñ Tuubaa bolon mo and ak mom ne ko so demee na nga ne ci wétu diko ko na ci wétu diko ko taxaw na ko taxaw dal da don ab taalibeem ko bi taxna mam momu muy sëriñ Mbàkke sama def si may muy sëriñam di leppam moo bi sëñ modou Abib wacce ab liggéey da wax da wax si da ko da ko na nga na nga jébal si abdou khadim ndax jigéen doon sëriñ bu xam nga lu doy war la ak lim mu doon ci sëñ touba waye mu jowal ko sëñ abdou khadim ne ko jigéen doon sëriñ bu lepp ba day day won rek kon fim mu tegoon touba ak ak ak ak ak ak warmaam doon itam ku manon rafet ku manon rafetal lol ma jabu soxna Xadi gi mu ko bàyyee ñoom la gënoon a fonk ci njabootu boppam soxna Xadi daa teel a wàccu liggéey bàyyi fi ñaar rek soxna Ayda ak sëñ Ahmadou Xasan ñoom ñaar rek la fi bàyyi waaye soxna May maanaam teg leen foo xam ne tegu fa njabootu boppam gi daa leen defal loo xam ko defal njabootu boppam lépp ngi sàmm kóllure euh, ak matal ko euh, te loolu it euh, am na firnde moom itam boo xam ne bu ñu am na am na lettre boo xam ne mi ngi fii mooy itam euh, euh, da ko da boo xam ne da ko dafa génnoon booba am yu lijjanti bind ko soxna so so soxna euh, soxna Aminata mi waajuram nga xam da caa waxaale na yaa ma gënal sama bopp wax soxna Aminata ko sa mbirum bopp moo ma gën a ñor ci sama mbirum bopp waaye nag ca biir lettre am lu ñu ca feeñalaale loo xam ne maanaam am na lu lu lu lu mu ko lu mu ko lu mu ko sàkk mu defal ko doomi soxna soxna soxna xadi yi waaye waaye defalu ko njabootu boppam euh, kon loolu day tegtal rek euh, maanaam fam leen tegoon ak nam leen jàppe woon soxna maam inta moom yi nag bi soxna mbay di wàcc ab liggéey fekk na bi mu nekkee ci waajtaay la yónnee di ko woolo waye gis nga seigne touba ni ñim yar niroowuñu kenn bisub ajjuma la ku ne xam ne jigéen julli ajjuma waru ko waaye fasu yene dem tu julliwut aljuma bam yoni wat ay ndaw ay ndaw yi ndaw waye ndaw li ñori mëna dama dem tu julli ma aljuma nabi bam mu aljuma nabi la do tagge nona dem dem mbacke fek ko fa mu wax ko lim ko bëgg wax lepp bi nga waxtaan lim bëgg wax mo lepp ba agal nak sona Aminti ne ko su fekente de ngërëmal wajur dana jariñ dara ma xamne do do gis mukk lo lesonal sonal mu ko ah ndey amante kay xam nga ne mos ndigal ngërëmal wajur dana jariñ fi ko wax ah, na la ko di ko won ko na bi ko ne gannaaw la daal bi ab kon lol da fay ne kon ci njaal ben ba ci ak mu jëm rafet lepp rafet lol kon ab kay la bo xamne ne waris ci mom Eh, lu bare bare ci bëgg Serigne Touba ak wolu bëgg gogu Serigne Touba dana fi bayit yo xamne eh, xeyna sax du ay wayam waye pas pasam motax mbindum loxam la waye nak wax ja da ko neex da bëgg Serigne Touba motax bayit yi moy mahabbatul abdil khadim wirdi wajha ladatil arsi khayru wirdi bëgg Serigne Touba mooy sama wird dafa yàlla nag mooy ngën ji wird dafa yàlla mooy ne bëgg suñu baa mooy ngën ji wird dafa yàlla mahabbatul abdil xadimi takfi charran wa an jalbi xuyóorin takfi neen bëgg sëriñ tubaa dafay fekk aw ay waaye dafay bijj itam aw yiw bu doy sëkk di ko indil kooku ko bëgg mahabbatul abdil xadimi tuuti barakatan min barakatil muti bëgg Serigne Touba dafay joxe barke yu bàyyi ko ci barke sun borom nga xam ne joxe barké mahabbatul abdil khadimil janna ahlaha minin sin jinna bëgg Serigne Touba neen dafay tabal ñoñam jannah, muy nit muy jinne neen ku bëgg Serigne Touba muy ngay nit muy ngay jinne neen bëgg goge mo lay al janna dal bi ne katibatuha maymunatul kubra al makkiyya jaalaha allah radiyatan mardiyya bi jaahi cheikh ahmad al mbakkiya alladi athbata bariya nga xam ne kon bëgg Sëñ Tuubaa waxtu nekk dafa dafay firndewu di xool di di di feeñ ci jëf yinam ci wax yinam ci léppam euh, li ñu jaxale nag mooy marché bu am solo boo xam ne bennaaru gànnaar moo ko bind ca butal talmit ci gànnaar euh, wax ci tarjumaan ne maa ngi maa maa maa maa ngi maa ngi màggal al muhtaram al cheikh Mahmadul Mamoun na ko yàlla sàmm te musal ko dan nag maa ngi jëmale ci moom nuyoo di ko wax ne gis naa sa sa sa leetar bi nga may xibaare wàccug liggéey soxna soxna su wattu soosee su mën a joxe soosee asaydatul xaafidatul munfiqa la wax may muuna mbàkke yàlla na ko yàlla yërëm amin ne ko maangi wax ne inna lillahi wa ilayhi raji'un waye sante yàlla nak ci lim lim lim nu dessal ci yéen te di la wax ne da daa ñëw ci masiya bi daan ma ngi wax na masiya bi moko defal wax ne saarat ila rahmatir rahmani maymuna fa kullu nafsin lidhaka daaka sayri mahzuna bintul khadimi jazaha allah salihatan wa rawdatan min riyadil alxuldi maymuna حول الخديم الإمام المقتدى خلوخا على إرائك بالديباج موضوعنا neen de soxna may mun day dox na jëm ci yërmandey suñu borom nee na bépp bakkan nag munta ñàkk mu dox jëm foofee mooy doomi Sëriñ Tuubaa yàlla na ko suñu borom fay aw yiw te defal ko ab dër ci dëri aljanna yi ci ci ci jantul xuldi mu nekk ku ñu barkeel foofee ca wetu Serigne Touba mooy mooy imaam ja di ko ñu ku ñu gërëm kay jikko di ca ay lalam yooyu wurusam foofee dana ma ni kharinatu shayqi fi ilmin wa fi karamin id kullu nafsin biman tahkihi maqruna tul fal ufata bi dhat al bayt la idatan fa shayqu waliduhum wal ummu maymuna neen moom de mu nek ko ku Serigne Touba ci xam-xam ci tedd nga ndax bakkan bu nek rek lamay ma lañ koy lañ koy niro lel day lekkelo ak mom ma da nga waxtu da ngay fekk kat yi ci buntam ñu fess del ñepp wëru ci mom waye bu ñëw ne Sëñ moy seen wajur soxna may seen wajur jigen yajnuna minhu wa minha kullu aarifatin ma in taraha madal ayami mamnuna ya ahla bayti habibillahi, inna lakum min na taazi bi darfil wuddi madmuna neen ñuy wat ci moom Sëriñ Tuubaa ak ci moom soxna si bépp képp kuy aji xam di watte ci ñoom xam-xam di watte ci ñoom itam njariñu àdduna nga xam ne maanaam lañ lañ fay jëlee doo ma du dakk waxtu nekk ci bis yëpp waxtu ne ñi ci moom di jariñu neen yéen yéen nga xam nag yéenay waa kër soppe bi yàlla bii waa kër Seexul Xadim maa ngi leen jox sama njaal mu ànd ak ci ci yoo xam ne dafa def ci ndabal ndabal cofeel dafay am dafay làmb ndabal cofeel jox leen ko dumtum kama rumtumu fi dilli afiyatin taxyuuna diina alhuda da'ban wa tax wa taxmuuna bi jaay maxdoomikum taaxa wa shiatihi alayhimu salawatun xayru mamnuuna muy marché bu rafet boo xam ne naaru gànnaar moo ko moo def jëmale ko ci soxna Maymuna waaye loolu mu ci feeñal rek ci ci ci ci ab taxawaayam ndax dafa nekkoon wetu sëñ Tuubaa di ko roy ci lépp gannaaw gannaaw cofeel geeg bëgge geeg talibe gi da ko doon roy ci aw doxalin ci lépp kon soxna Mbène yàlla ko son ba am fayal. ci Serigne Mamor xam naa ne eh, lii dafa mëntoon a ñàkk waxtu wi sax mel na ni kocc na tubaarkàlla ñu ngi ci sant bu baax ndax wax nañu li ñu des ci ay simili daa néew lool waa kër soxna Xadijatu Serigne Cheikh Abdou Mbacke Fadiama. ak sëriñ Alpha Bousso ñoom itam teew nañ fi ñu ngi leen di santaat baax di leen gërëm sëriñ Cheikh Abdou moom itam di kenn ci nun ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mbacke Fadiama di sant bu baax sëriñ Boussra Samb ci wax jeeg teewaay beeg lépp ay yitte yëpp ñu ki noonu sëriñ Gane Mesere Mokhtar di sant sëriñ Cheikhouna Bousso Cumbuleen di santaat Cheikh Mouhamadul Lamine Diop tubaarkàlla yàlla may moom dong nag mooy woy léegi nañu woy kii yëpp nangu ko. wax na ko ci biir ay waxam ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ndax li mu indi itam daa yaatu lool tam solo di sant ak gërëm nag bu baax soxna May bintu Serigne Mouhamadul Moustapha ak soxna May moom si Abdullahi borom dër bi soxna May moom si Abdul Fadil soxna May Lahat soxna May moom Serigne Sidi moom si Abdul Muxtaar waa kër Serigne Abdul Xaadir Mbàkke yëpp ñu leen di sant leen gërëm waa kër soxna Khadija. waa kër soxna waa kër soxna may moom sëriñ Modou Fati Xari ak soxna may moom sëriñ Moustapha Ceytu ak mbooleem koo xam ne rek wax dëgg yàlla teew na fi ci turandoo yi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen teewaay bu rafet wax na itam ñu ngi sant sëriñ Ahmadou Mbackiou Faye moom itam jaar na fi njëkk muy dem di wuy ji sëriñ Bassirou di fa dem sëriñ Cheikh Balla Samb it teew na fi ci waxtaan wi bi ñu door xane moy ne mooy kilifa télévision Touba TV ñu koy sant bu baax di bu gërëm di santat nak serigne abou Mbàkke bu baax ak ki nga xamne moy soxna maam Anta rakkam di leen ñaanal di fàttali bis bi ne inshallah allah àllarba lay doon ci kër gi nga xamne mo moo nekk ci wetu aynu rahmati fa lañ koy defé day yandu itam inshallah allahu taala di sant nak bu baax jëmm yi fi tew yëpp waye di bég ci boy waxtane doomi sëriñ Touba di toll nii soxna may mun a kabiir di joxe ay seede ci moom ngir ñi xamul ci moom man caa xame ci biir seede yooyu ñuy tànn di ko yëlëb di ko joxe kenn ci tànn wu tànn teew fii di leeru Sëriñ Abdul Xaadir Mbakke muy sëriñ Sidi Mbakke moom Cheikh Abdul Xaadir di jàmbar lool woyof toy topp ci ginnaaw ay magam wan ñu aw yoon ci kuy taalibe ku ne ndax wayef gi ak nim mu ni ne nii lañ war a toppee suñuy kilifa loola tax na lépp luñ ko jox ci kër Cheikh Abdoul Khadir taxawu na ko séddale ko séddale wu rafet woo xamante ni kenn ku ci nekk la cay sab cër féete woon na la ca nga yar ko da dara yàquwut loolee ñi ngi koy ñaanal moom Serigne Sidi mi sedde tey jii lii nga xam ne mooy waxtaan wi suñ borom dëgëral ko te kattanal ko te dolli ko wér ci barke bu waajuram wu tedd wa mu Cheikh Abdoul Khadir ñi ngi bég lool ndax sigil nañu sagal nañu kon yàlla na ko yàlla sàkkal ca la moom ca lu baax ci barkeb sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moom nag mooy tëj jataay bi insha allahu taala xanaa di joxaat sëriñ Lamin kon kàddu yi nga waaw kon bisimilah macha allah euh, kon santaat nañ bu baax sëriñ Moor Mbàkke ñu ngi lay santaat yow itam bu baax sëñ Moor euh, bég naan ci taxawaay bi sëñ Abo nag moom dañ koy ñaanal suñu borom ndax yéene ji dafa lool ñu ngi ñaan suñu borom yàggal taxawaay bi euh, tubaarkàlla kon ñu daal di jox ki nga xam ne mooy sëriñ Sidi ñëpp commencé teewlu ko incha allahu taala bismillah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جريني في تاو تيو خالدي أكسوبي أكويلري نيجي لين دي نيو كان يكون نك جسانتم دي نيو جي ترو سرين سيح مكيني أخمنا موي جوليني أشياء عبد دي نيو جي njabootu Serigne Abdou Khadre gépp di leen nuyu ci turu Serigne Abou Mbacké mi nga xam ne njabootu soxna Aminata Bousso gi mooy ci mag fi ne di nuyu ci turu soxna Maam Anta Mbacké di nuyu ci njaboot gi fi taw gépp di sëti asayidatu Maymuna ñu fi taxaw ñu nekk ñëpp nga xam ne ñooy taxaw bis bi ñu nuyu seenu tur di nuyu waa bi nga xam ne ñoo ñëw fii tey fekk suñu fi ngir jàppali ñu ci bis bi nga xam ne moom lay waajal sunu bàjjan bu tedd bi di sunu waajur sax soxna Maymuna radiyallahu taala anha ñu ngi nuyu waa Touba TV yëpp tàmbalee ko ci seen kilifa ga ak mboolem ñi nga xamne ñi ngi liggéey ci télévision bi di leen sant bu baaxa baax ci seen taxawaay bu rafet bi ngi di taxaw ci bis yu mel ni ki nii bisi njabootuk Sëriñ Tuubaa gépp ak lu jëm ci njabootu murid yëpp ak taalibe yi taxawaay yaay yéen yi ci taxaw ñu ngi koy gis di ko rafetlu bu baax te di leen ñaanal fu ngeen bëggee egg ngeen egg fa ñu am mbégte bu baax a baax nag ci teewe gi ñuy teewe waxtaan wi jëm ci sunu wayjur woowu di jégg lu baax ci yéex gën a yéex si ngir waroon nan ku dikk fekk ñu fi ku dem bàyyi ñu fi ngir liñ doon ci bés bi ak ak liñ xam liñ xam ne boole ngeen ñu ko ci waaye ak liñ ci bokk lépp nag njabootu sëñ Abdou Khadre gépp waroon teew ndax xam yi rek moo tax waaye mu mel ni ñi fi tawee dama ko fi teew ku ne waa soxna may mun nag day mel ne liñ ci waroon a wax lépp ñi ñu jiitu wax nañ ko xanaa ñu cant rek moo ci boole damay wax ne soxna may mun a lenn rek doy na ci moom ci dara daraja dayna ci moom aw tag sunu yaakaari tay ak ëllëg mu tey ak ëllëg mu Seexuna al Xadiim radiyallahu taala anhu lo xamne neewon na ñëgg ci xolam ak xalam tam fajal ko lola lola do do ci ndam ji mom ci ku no wax xana xamne ne serigne touba wax na ne bam mu ci gànnaar ba ko Seex Siidiyee taragale taral lolé te doomam ju jigéen ji bindoon kaamil boobee ba rafet indil ko ko loola nekkoon na ci xolub sëriñ bi muy lu ko lu lu loo xam ne bëgg na bëgg nag koo fay ca soxna May mu a mii la yàlla dogal booba gënewul àdduna sax te bari nañu ko mag ci njabootu sëriñ bi te loola ma mënoon naa jaare ci moom waaye yàlla dogal na ci moom lañ dégg ni sëñ bi wax na ci loolu ne loolee ko naar ba defoon de soxna may mii bi mu dikkee toog bi mu dikkaatee fekk njaarim moom dafa fekk mu mokkal alxuraan bi bindub kamil boole ca toog nag mën na liggéey liggéeyu jigéen ba defal ko cere joo xam ne fii loola moom naar ba mënu ko woon muy mbégte ci sëñ Tuubaa moom mbégte mi doyoon na sëkk ci moom ndax ñëgg ñëggi sëriñ Touba lu ko dindi kooku fala fala fala ndam yem fala dara jëm te loolu yàlla defal na ko kon nag nit la koo xam ne dañuy taasu ci barkeem te maa ngi dégg léegi ni bi ngay sant tudd soxna ma yi mboolem njabootu sëriñ Touba yi doo fa dugg kër te ko fa am soxna may te ca mag ca mag ña lay doon tam nag tudd nga Cheikh Moustapha tudd Cheikh Ahmadou Fadal tudd Cheikh Amadou Basir Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Soyebu Cheikh Mourtala ak mboolem nag ñi nga xam ne ñooy bokk Serigne Touba yi loolu muy ab cër bu rëy yàlla mayal ko cër beneen cër itam boo xam ne ñu ngi ko may bariwut ndax yàlla may na ko fii ñu toog rek mu am kër Serigne maam Thierno Birahim ak borom saam ak sama turóodo am Seex Anta cër yooyu itam moo dajalewaat ko kon nag boole bi cër la Sëriñ Tuubaa gi dara ñëw lépp matal lépp muy ko am pasteef koo xam ne noonu ñu ko waa ka Sëriñ Tuubaa yi tuddee ay doom noonu leen yor leen seen kër man dégg naa ci sama la suñ soñ bu mën a ma sama kër gi bi ma fi xamee dara ginnaaw bi soxna ma jigéen la waaye lu fi mas a taxaw lu fi nekk moo fi ñëw lijjanti ko te noonu la noonu ne woon kër Sëriñ noonu la defoon kër kër mi nga xam ne moom bokk lépp noonu la ko daa taxawoo defu ko woon rak da ko jàpp woon ngir Sëriñ Tuubaa ndax booba ku ne xam ne ne sëriñ bi yoroon aw tàngooram foo xam ne neexutoon a jaxasool neexutoon àndal waaye ku ne xamoon na ne moom yàlla dimbali woon na ko ba xam nu muy naxanteeg moom ba lu teewoon nit ñi ci moom moom mën na ko lijjanti ngir ak woyefam xam gëm xam Serigne Touba ak fonk gëm fonk Serigne Touba ba tax da koy mën a dékku ci anam yëpp kon nag buñ koy waajal bis bis war na taalibe yëpp ak murid yépp fonk ko waaj waaj waaj ko ca te am ci pastéef te fas yéene ci roy ci jikkoom yooye ak meloom yu tedd yooyu ndax màggal ku baax ak ku mel ne soxna may mun a mi ñu ñu tudd jikkoom yi fi ñii ko wax ñi ma fi fekkee sëriñ Moor doon ko waxtaane léegi muy ay jikko yu tedd ak melo yu màgg yooyu war nañ ci jéem a roy bu baax a baax jigéen ñëpp war nañ ci jéem a roy bu baax a baax gëm sëriñ Tuubaa bu baax am pastef ci sëriñ bu baax nangoo jàng bu baax di jàngale bu baax a baax mbooloom mbooloom jigéen ñu ñu jaar ci loxoom ñëpp ay tànneef lan ndax ab yarkat la woon yarkat bu mag bari na ci njabootu sëriñ Tuubaa yi ñoo xam ne seeni jigéen foofa ci moom la newoon mu yor leen yar leen ku ne xam na ne bu guddi masaa jot fii ci këram dañuy yëkkati yi di ko jàng am ñu yor daara di fa jàngale ci kër gi itam loolu ñun ku ne xam na ko ci moom loolu nag lu am solo la kon nag war nañ ci roy bu baax a baax ñu ngi sant bu baax nag sunu mbokk yi nga xam ne ñu ngi taxawal bis bi ndax lii lu jaadu la ci soxna May lu war la ci moom ñu bisam ku ne xam ne ne soxna May ni mu demee ci yoonu murit ni mu demee ci diine ji bisam bu bu mu ko wootee cam jaar fu mu war a jaar du yem benn bis ci yoonu ci yoon wi kon nag ñi ngeen def fobuwaat gi ngeen fobuwaat ngir taxawal bis bi ngir jëmal soxna su sedd soosu ñu ngi leen ci sant bu baax te di leen ci soññ bu baax ngeen gën koo fonk gën koo jàpp ndax nit kat amul lu bisam waaye amul ñu itam amul lu dul may moon a mii ñun ñëpp mooy suñu lépp kon nag buñ sañoon fu lu ñuy wooteel nit rek ñu di ko defal kon nag ñu ngi leen ci gën a soñ bu baax ca ñaan yàlla ngeen daje jëg ci ngeen daje ci ngërëmam ca ca ca leer noonu am ngeen ci ngërëmam tam kon nag yàlla yàlla leen ko yàgg a taxaw yàgg ko woote seddi ci am ndam bu baax a baax ci barke Sëriñ Tuuba kon xam naa gàtt kaddu yi kaddu gërëm rek la woon ñu ngi sant ñëpp nag ñu sant bokk yëpp bokk yëpp moo doon bokk yi nga njabootu soxna Fadja gi ñu ngi fi teew ak njabootu soxna Xadi nga xam ne moom bu ñu tuddee soxna mooy soxna soxna Xadi dugg ci biir ak mboolem mbokk yi fi nekk yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax ndax noonu nga ko waxee soxna soxna Maymuna moom soxna Fadja moo doon école ndax Serigne Touba soxna Fadja la leen laay booleel mu leen di yar ci taalibe ku ndax yoonu murid moom ak taalibe soxna Fadja mooy ci misaal hmm. ci moom la mën kon nag bu soxla bu leen màggal soxna soxna may njabootu soxna Fadja gi ñu fii teew fi loolu dal xel la ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm sant borom mbokk yëpp te ñaan ñu dugg ci ak bisimillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin te daje ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum nañ bu baax ci teewaay bi ak kàddu yu seede yi di fàttali mbokk yi rek ne soxna Maymuna mi ñuy waxtaane incha allahu rabbi àllarba bii di ñëw lay doon maanaam fukki fan lay doon ci aw kor kon àllarba lay doon ci këram gi ci wetu aynu rahmati lañ koy defee dañ koy yendoo itam incha allahu taala di sàkku mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe ñi ñu bàyyi xel bis bi incha allahu ba man caa teew te fasaale ci lépp loo xam ne bëgg nañ ko ndax kenn la ci njabootu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim li fi ñi fi waxtaane ñi fi jaar ñëpp waxtaane ko dégg ngeen wax ci moom ñi ngi sant bu baax eh, ñi nga xam ne ñoo ñu woon tey jii sëriñ Abo ak soxna Mamante ñëpp ñu ngi leen di siyaar ji leen ñaanal jàmm sëriñ Abo nag wax na ne moom bàyyiwul kenn mboolem jullit yëpp woow na leen ci bés bi yendu lay doon ni ki noonu sëriñ Moor ak njaboot gi yëpp bàyyiwul kenn di sant bu baax ñi nga xam ne ñoo taxee woon liggéey bi muy sëriñ mbaki Mbooj ak sëriñ Mañang sëriñ Yuusu sëriñ Pape Cheikh mi nga xam ne moo jiitu wàllu caméraman yi ak sëriñ Ousseynou Mbooj mi nga xam ne moo leen fekk si Touba moom itam ak sëriñ Papa Omar ak sëriñ Atumaan ci wàllu jokkalante fii lii ñu ngi leen sant yoon gërëm bu baax ci taxawaay bi sëriñ Omar Samb niki noonu sëriñ Ndiaye ñaay fay àll bi ak itam sëriñ Alioune mi nga xam ne mooy sëfoor bi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ci liggéey bi di ñaan suñu borom defal ñu sutura defal ñu toofeex yegg lañ ci bis ba ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. la màggal danañ la jiital ma wax la màggal. ma tàmbaleeti te wax le feeti te xam le feeti njariñu màggal ma tàmbaleeti te wax le feeti te le feeti njariñu màggal ku jug di màggal di yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital